keneen ki itam mu roose loolu ci droit de la bokk bu fekkee ak dex dafa jaar ci sab dëkk sañoo koo tëj sañ nga rek ja jëriñoo ndox ma waaye na nga bàyyi boo jëriñoo ba pare mu dem ca keneen nit mu jëriñu ci ndax moo ko koo ko defaroo ko loolu mooy bu fekkee ndox mi dafay daw bokk la ndox moo xam ne yaa koo gasal sa bopp ba yonent bi ne Zubayru booroosee na nga bàyyi ndox ma jàll waaja dal di mer ne waaw kay ndax sa doomi bàjjan la danga ko war a na wax ne waxtu muy roose bu mu tëj ndox mi na ko bàyyi ñu roose ndoor waaye nga naan ko boo ba sottal bàyyi ndox mi jàll ci kër diw dal di ne sot nga yàlla nag ne yéen ñi gëm yàlla wa ma arsalnaa masunoo yónni ñun rasulin benn yónint illaa li yutaa lu mooy dañoo bëgg ñu topp ko ci li muy digle bi idnillahi ci ndigalal yàlla walaw annahum donte nag ñoom ñooñale yenente bi àtte ñu lànk te loolu bàkkaar la yenente bi àtte ñu mer ci bàkkaar boobu su fekkoon ne ñoom izzalamoo ba ñu tooñee anfusahum seen bopp ci weddi àtte bi jawwu ko ëllëg sa dikkal nañ la fastaxfirullah ñu jéggalu yàlla ci liñ bañoon àtte bi wastaxfara te jéggal ñaan njéggal lahum ñeel leen rasulu yonent bi suñ defoon loolu la wajadoo ñu fekk laa yàlla tawaaban muy nangu waa koo ni tuub rahiman di ajiram waaye defuñu ko su fekkee bi ñu bañee atte yàlla tuuboon nañ jéggalu ci yàlla ñaan yonent bi ne leen ne ñaanal yàlla mu jéggal leen gis nga alquran waxut ne mu ñëw yonent bi jéggal leen daf ne mu ñëw yonent bi jéggalul leen wastaghfara lahum rasul ndax ki jéggalee mooy yàlla kon la wajadullaha tawaaban rahima waaye falaa déeréet defuñ noonu wa rabbika waaye génn naa ci sa borom ne laa yuminuuna du ñu am imaan duñu gëm yàlla mukk xataa yu xakkimuuka lu may batañ la nangoo atteloo fi ma shajara ci lépp lu xew na baynum seen diggante summa topp gannaaw boo attee nag laa doo duñ fekk mukk xarajan benn tiis ak naqar fi anfusihim seen bakkan ci li nga atte bi ma ci li nga atte wa limo ñu jëbbal mbir ma sa atte ba tasliman ak jébbal feeg lii amul rek booye boo nga xam ne gëmaguñu yàlla mu ne ba tey mu ngi biral jikkoy dama aadama yi dafa rëy gémmiñ rey lu muy wax léeg-léeg da nga gis koo xam ne day mébét bu ma fekkee woon jihaar jamono yonent ma def nangam ak ki nangam ak ki nangam yalla neena na ngi lay géñal ne ñu ci bari diko wax buñ ko fekke won duñ dem mota mu ne walaw anna naa nun yalla katabna naa farataaloon nañ alim ci nin ñi ne anuqtulu rey raylan anfusukum sen bop aw uxrujoo wala leen sen bop min diyarikum sen kër ya ma faaluhu duñ ko def illa qalil lu minum ci ñom walaw annahum donte nag ñoom faalu defoon nañ maa yuwaaduuna la def na waare leen bii ci loolu suñ ko defoon la kaane nekk loolu xayran di aji gën lawum ñeen leen waa shadda tey gën a tar itam tasbitan saxal wa idan te kon booba la ataynaahum danañ jox leen ci pay min la dunaa bàyyee ko fa nun yàlla ajaran yool aziman bu daay ji mag wala hadaynaahum ko it nu jubal leen siratan yoon mustaqiman wu ne caw <laughs> bay na loolu wa man yutii illaha wa rasulahu lu ko tax a wàcc aïcha radiallahu dafa wax ne benn waaye dafa ñëw ci yenent bi nekkoo ko yow mi yàlla yónni maa ngi lay seedaloo ne yow laa gën a bëgg ci sama bakkan yow laa gën a bëgg ci sama doom ji ma jur damay toog ak yow ba yàgg ma ñibbi sama kër duma mën a toog fokk ma dellu siwaat toog ba xool la door a mën a dem waaye yonent bi loolu yëpp sans problème sans problème moo di ne ni yàlla def ma mel ko ci yow mii ngir te ngir yàlla la su fekkee ne dee nga man ma dee yàlla sax baaxee ma ma dem aljanna li ma wóor moo di ne sama baax tolluwul ni sag baax te kon fa ngay dëkk ci aljanna du ma fa dëkk te kon du la gisati lii kat sama problème la yonent bi ne ko jarul nga ciy tiit المرء مع man ahabba yow mal qiyaam ñi dem aljanna ku nekk nga beug nekkal ngay nek ni na kon sama xel dalna alquran ne wa man yutii ku topp na laa yàlla wa rasul te mu topp bi ñooñu kay bu ñu tiitati fa ka ñoñu ci yowmal qiyam ma allazina ñoy bok dëkk ak ñi nga xam ne anama allahu xéewal na yàlla alim ci ñom min an nabiyina ci yonent wa siddiqin way dëggu wa shuhada way shahid wa saalihiin ak way yiw yi na rafet na ulayka ñooñu rafiqan na ci àndandoor xam nga doomu aadama dafa xër rek daraja yi yàlla jox doomu aadama yi nabi iin mooy yonente yi boobu bunte yàlla tëj na ko dootul am siddiqiin mooy sahaaba yi mooy ta sahaaba yi ak taabiun yàlla tëj na ko jeex na shuhada jeexut mooy ñi sayit ci yoonu yàlla saalihiin jeexut te ñii ñooy bokk dëkk kon ñi dafa xir rek bay woote ak yonent ak siddiqiin waaye ay daraja fi yoo xam ne tëjagul te mu ne ci rek yàlla ne ni ñoo ñëpp nabiina wa siddiqiina wa shuhada wa saalihiin ñooy bokk dëkk ci aljanna waxa suna rafet na kat ulaayika dëkk ñooñu rafiqan ci ana ndoor kon yooyu ba tey tëjagul te zalika loolu dëkk ak ñooñu kat alfadlu mooy ngëneel min laay ci yàlla wa kafa doy na billahi yàlla aliman di léegi ma ngi dugg ci siyaasa alxarbiya maanaa politique gu xeex wala guerre wala politique gu jihaar ni ko alquran gisee ni ko alquran gisee xam nga suratu nisa dugg na ci biir kër gi affaire social wax na ci muy biir kër gi ak njaboot geeg yooyu le indi na ay miraas ak yu demee ni ki noonu ay dëkkandoor ak jirim yeeg jegeñaaleeg société bi yëpp tudd na ko ndax bu wax na ndey wax na baay wax na doom wax na jabar wax na jëkkër wax na jegeñaale wax na jirim wax na miskin wax na dëkkandoor kon société bi yëpp wax na ko foofu kon nag li ko desee bi mu waxee axwaalu shaxsi yi muy affaire miraas yeeg takk si yeeg tekki yi sëy kon li ko desee moo di ne ci mbiram peex nan la nuy wattandikoo sunum noon nan la ñuy fexe ba suñuy xibaar suñum noon du ko du ci jot nan la ñuy fexe itam ba gëm sunum réew ba bu ne jóg leen ñun ñëpp ñu jóg pour defar nan la ñuy gëmee sunum réew gëm suñu bopp ba ñun ñëpp dañuy wattandiku yàq suñu bopp yàqal suñu bopp yàq suñu alal réew nan la ñuy gëmee loolu te noonu lañ ko alquran sante ndax itam bu fekkee bëgg sa bopp dangay ngay bëggaale sa morom soo bëggee sa morom doo ko doo bëgg yàq alalam doo bëgg yàq ak këram te alquran ne nañu woon bu kenn génnee boppam këram mooy boo tajee kër nit taj nga sa kër ndax day fayu boo saagee nit saag nga sa bopp ndax day fayu boo saagee way jur nit saag nga sa bopp yonent bi nee na bàkkaar gënt te màgg saaga sa way jur ñu ne ko yow mu yàlla yone lu loolu nu ko nit di defee mu ne da ngay way juri jàmbur rek mu fayu yaa ko def yaa saaga sa sa way jur kon nag la quran di wax naan wala tuxriju anfusakum min diyarikum bu leen génne seen bopp seen kër mooy ku yàq këri jàmbur sa kër nga yàq ndax day fayu rek loolu lañu ñu alquran di jàng ne nu bëgg suñu bopp ak suñu réew bu ñu jog leen ngir defar ñun ñëpp ñu nekk mbooloo pour defar mu ne yaa ayuha alladina amano yéen gaa ñi gëm alquran xudoo jàppaleen xidrakum seen ak vigilance mooy seen ak wattandiku ku ci nekk ci ñun na yeewu bay wattandiku ba du yàq wan firoo buñ ne jóg leen na ngeen tëpp ngeen foñ jógandoor su baatin mbir moom ngeen nekk di mbooloo jëm ci defer awin firoo walla ngeen jóg su baatin ngeen di way teqali ko awin firoo wala ngeen jóg yéen ñëpp jamian ngeen nekk mbooloo wa inna minkum nekk na ci yéen koo xam ne la man koo xam ne la yu batti am na dafay yéex yéexlu bu jëmee ci defar aw yiw day jéem a yéex wala mu ne sama yoon nekkut ci ah bu ko diween defee mu doy te fa saabat asaabatkum bu leen jotee musibatun musiba qaala mu ne xadaa na amallaahu xéewal na yàlla alayhi ci man dégg nga islam akku ndax nekkuma woon shahidan di aji sayid ma man ak ñoom su fekkee ne dem ngeen ci defar googu ak jiyaar googu ñu gañe leen mu ne am ah, man de am naa chance ndax déw ma su ma demoon de li dal diween dal ma waaye naa saaba saabakum bu leen jotee nga ngëneel mooy ngeen xeex ba gañe ba ñëw defar ci dëkk mi ne laay ci yàlla defar seen seen dëkk la yaqulu na ma nga naan ah du ngeen ma ci séddam kaan lam takkun ma ngi leen añaanee la ngeen am ba mu ngi mel ni mësul nekk baynakum seen diggante wa bay na woog moom ma waddatu genn cofeel ndax am na genn kañaan goo xam ne am na xool bët goo xam ne bu la ko nit xoolee bëggatu la moo tax mu ne dañ lay añaanee ba kaan lam takkun baynakum wa baynahu mawaddatun te loolu day bëri ci doomu aadama nit a ngi nii am dara nga di ko xool di ko xool ba far ko ko añaanee yaakaar ne lii lépp nangama tax mu am ko nangam ak ki nangam mu ne loolu su ko defee kañaan gi ñëw na mu ngi mel ni nekkut julit mu ngi mel ni ma wadda musul am seen diggante ma nga naan yàlla ite ni yelente man dey kuntu ma nekk maamu ma ànd ak ñoom faafu samay texe kon tey faw san texe yaa si man guddaay loolu mu ne na ngeen ko bay fal yuqaatil na xeex fi sabilaay ci yoonu yàlla la dina ñi nga xam ne yashtaroona ñu ngi jëndee alxayaata dund bi adduniyaa bu daa ji jege bil axira teg alaxira wa man yuqaatal ku xeex na fi sabilillah fa yuqtal rayef ko aw yaxlib wala mu not fa sawfa nutii danañ ko jox ajaran yool aziman bu daa ji màgg wa maa lakum loogi yéen julit ñi laa tuqaatiloon du ngeen jihaar du ngeen xeex fii sabilillahi ci yoonu yàlla wal mustadafin te ñu ñu néewal doole ña min rijaali ci euh, góor ña ci li julit ñi góori julit ñi wa nisaa yeeg jigéen ña wal wildaane gune ya la jëne ña nga xam ne yaquluuna ña nga naan toog ci dëkk bi yéefariya ca Makka naan rabbana yàlla axrijnaa yal na nga génnee ñu min hadihi alqaryati ci bileb dëkk addaalimi bu daa ji tooñ ahluha waa dëkk ba wajaal naa yal na nga def la naa ñeel ñu ñu la dun ko fa yow wàlli yan aji méngoo suñ mbir wajaal yal na nga def la naa ñeel ñu mi la dun ko fa yow nasaren aji dimbali la jëne ñi nga xam ne amanoo gëm nañ loolu alquran nee na haadihi alqaryati azzalimi ahluha dëkk bii nga xam ne waa dëkk bi dañuy tooñ mooy ban mooy mag ahlu faayil zalim la ismu faayil dafay liggéey moo tax liggéeyu uh, fiilam ci ay jamono mooy bu fekkee dafa sukkandiku ci loo xam ne moo jib la moo xam lifak laam la moo xam istifham la moo xam nafyu la walla mu tanwiin fokk day liggéey la fi aljidan ji daan liggéey loolu nag ñu doon jàng naxu rek lay waxal moo indi ahluha mu wajal lana min ladunka nasiran loolu it dafa bëgg wane ne ndimbal dëgg fa yàlla rek lay jóge xam nga nit mënul dimbale kenn boo gisee gaañu ne chinois yi dañuy lépp naan jàngal ma napp moo gën nga may ma jën ndax boo ma mayee jën bu subaa yi damay soxla jën boo ma jàngalee napp nag man ma mën nappi kon dimbal fa yàlla lay jógee yàlla rek mën a dimbale yàlla mën a dimbale rek ñëpp a jot ci waaye nit kenn rek lay defal wala kee te li mu ko defal bu ëllëgee mu soxlaat du am kon dimbal fa yàlla moo tax mu ne min la dun kana siran moom dafa xam li muy wax ndimbal lu jóge sa yow ndax loolu rek moo moo mën a mat alladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ yu qaatiloo na ñooy xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla walladina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ ñoom nag yuqatilun ñoom it ñu ngay xeex ak a défendre fi sabili taxuuti ci yoonu iblis bu fekkee ne toog mënul am benn nga xeex ci yoonu yàlla wala nga xeex ci yoonu iblis toog du am kon nag bay boo nga yëngu ci yoonu yàlla fa qaatiloo kon xeex leen kon awliya cheytaan yéen wali yu cheytaan yi waaye lu ngeen sonn sonn inna kayda cheytaan yi naka pexem cheytaane kaana musumoo dañ fa yàlla daifan di aji doye di du am benn solo mu ngi ñëw ci ñi nga xam ne seen bakkan dafa doyadi ñi nga xam ne seen imaan seen imaan dafa ñàkk daanaka ana kan la bakkanam doyadi kan la imaanam woyof mooy nit koo xam ne dafa jël nit ni moom ragalee ko ni mu ragalee yàlla fonkee ko ni mu fonke yàlla te nu la ko alquran di waxee ci yeex bi ba tax ñenn ña jël nit tiit ca moom ba bu ñu waxee ne jihaar ñëw na jihaaral ci diw yaa ngi ko ragalee ni nga ragalee yàlla wala lu ko ëpp naan lu tax yàlla di ma booleeg diw diw mel nii mel nii mu ma ëpp lii kon ragal yàlla rek nga ko war a def wala wax ne alam tara ndax xamoo ila la dina jëm ci ñi nga xam ne xii la waxeef na lawum ñeen leen ne ku foo fegu leen ay deekum seeni loxo ba bu leen tooñ waa qimoo te ngeen taxawal salaatu julli waatoo ngeen joxe zakata azaka ñooñu nag ba farataalee fee alihim ci ñoom alqitaalu xeex isa ci betteel fariqun ab kuré minum ci ñoom yaxshaw na ña ngay ragal naa sa nit ña ka xashyatillahi ni ñuy ragalee yàlla aw ashadda wala ni ñuy ragalee nit sax moo gën a tar xashyatan ci ragal wa qaalu ñu ngi rabbana yàlla <clears throat> li ma katabta lu tax ngay farataal alayna ci ñoom alqitaala xeex law daa xartanaa tee nga muñaloon ñu ilaa ajalin ba cib dig qaribin bu daa ji jege xul waxal ne addina mi yàggut ndax mataau dunia xéewalu àddina qalilun lu tuuti la ndax léegi mu jeex wal axiratu alaxira xayrun moo gën li man ittaqa ñeel ki ragal yàlla wala tudlamoona bu ñu demee alaxira defut tooñ leen fatti leen lu tol ni fatti firi woon nañ ay na maa takkoonoo dee moom jaru ragal ndax mu ngi mel ni gëlëm ak tukkal rek jarul muy ragal moom bitti rek lay fanaan kenn mënu ko wutal ab wut ab wala mu nekk nit nag jëlam ak tukkal la ñeme dee dee ragal dee dee kon nag jarut ragal jéemal a def li ñu wax ne boo dee boo dajeeg moom baax jéemal jaar ci yoon woowu waaye toog di ragal dee ba ba ba meseer ba ñu la wata guddi jaru ko li ñu wax ne boo dee mu di xéewal def ko liñ ne boo dee muy mbugal ba ko waaye ragal gi jaru ko ndax du ko fanq alquran ne aynama takunu fu ngeen mën a nekk rek rek yudrikum jot leen almawtu dee walaw kuntum doonte nekkoon ngeen fii burujin ci ay nguunu mushayyadatin yu yëkkati ay étage yu kawe bu ngeen ca nekkoon it dee fekk leen fa kon jarut ragal waaye tusibu dem jot na leen xasanatun lu baax yaqulu ñu wax ñoom nafiq yi haasihi lii de xanaa min indillahi fa yàlla jóge waaye waaye tusibu bu leen jot nag sayatun lu bon yaqulu ñu wax ne haasihi lii min indika ci yonent bi la dafa gaaf lu baax bu ñëwee ñu ne ah yàlla baax bu aw naqar ñëwee ñu ne yonent bi moo gaaf ci moom la jógee xul waxal ne ngeen ragal waaye gaaf kay du du yonent bi du keneen yàlla tigi moo gaaf ndax lépp lu lay naqari ci yàlla lay jógee moo tax mu ne xul waxal ne kullun képp ci gaaf yooyu min indillahi fa yàlla lay jógee fa maa li haulaai l qawmi moo ñii loog ñoom laa yakaaduuna yafqahuuna hadisan duñ xaw mën a dégg sax li may wax gaaf fu muy mën a jógee fu mooy ci yàlla yàlla mii di dem ma aw loos dugal doomu adama ci biir xabru moom rek gaaf da nga koo ragal a wax fa buur ne li wér mooy saaba asabaka lu jot na la min xasanatin ci lu baax te giin na tax nga ne fa yi ma ngi bàyyi ko ci yàlla wa saaba ko lu jot na la nag min sayatin ci ñaawteef fa min nafsika yaa ko liggéeyoon waa arsalnaaka yónni nañ la dinaa si nga ñeel nit ñi rasulan di yónent wa kafaa doy na nag billaahi yàlla shahidan moo seede ne maa la yónni kon bu ñu la weddee itam yow mu ñee ko loolu bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci ni ñu war a toppee yàlla ni ñu war a toppee yeneent bi ak it di wane ne alquran mii nag loo ci mën a dégg fa yàlla la jógee daal ndax yii muy wax bu jóge wutoon fa yàlla du ko waxee ni le ndax alquran balaa jeex ku nekk danga ci am sa wàll amul kenn kenn ku muy bàyyi du góor du jigéen du mag du ndaw du ku xam du ku réer ku ne rek danga ci am saw sas bu jógewoon ci ku yàlla kon ña koy jàngale ñoom duñ ca bokk du leen da leen di teggi waaye fa yàlla la jógee moo tax ku ne da nga am moo tax mu ne waman yutee ku topp na rasulu yonent bi faqad ataa topp na laa yàlla waman tawalla ku dëddu na fa ma arsalnaaka ku la bañ a topp nag euh, yow nag nekkuloo policier bay contrôler nit ñi fa ma arsalnaaka yónni wuñ la xaafisan nga def gendarme alim ci ñoom di leen di leen sàmm nag yow daal ku topp baax na ku topp nag nekkuloo benn gendarme bu leen di garde wëccër rek wa yaquluuna ña nga naan taatun ak topp la daañ la topp ak topp de loolu la ñuy wax bu ñu toogee de waaye fa isa barazo bu ñu génnee min indika fa fi nga toog ak ak ñoom bayyata dal di fanaanoo pexe mu bon taifatun ab kuréminum ci ñoom gayra lazi ñi nga fanaanoo lu bokkut ak la nga xam ne tequulu yaa ngi ko doon wax buñ toogee fa yow la wax rek ñu ne taatun taatun waaye fa isa barazo dal di lànk wallaahu yàlla yettubu dana bind maa yu na pexe ma ñuy fanaanoo yàlla bind na ko Euh, def dana leen ko fay faari dëddulaanum ci ñoom wa tawakkal te ngay sukkandiku laay ci yàlla wa kafa doy na billaahi yàlla wakkilan di ku ñuy sukkandiku wala di aji seede afala yatadabbaruuna alquran xanaa ñoom dañoo seetantalut alquran dañoo seetantalut alquran ndax alquran moom ba ba muy jeex yàlla rek kay nekk yàlla jaam bi nekk ab jaam aw yiw rek kay jëriñ alaxira ab safaanay tax a dugg safara lii ba alquran jeex du soppeeku motax tax mu ne afala yatadabbaruna alquran kana dañoo settantalut alquran walaw kaana bu nekkoon min indi xayrillaahi jógee fukk duhut yàlla la wajadoo kon ñu fekk fii ci alquran ixtilaafan ab wuute kon da ngay gis yàlla yàlla ba yàgg ñu tudd keneen mu nekk yàlla waaye ba bu muy jeex yàllay nekk yàlla jambi nekk ab jaam wala boog day wax ne aw yiw lay fay aw yiw lay fay aljanna ab safaan safara ba yàgg mu wax leneen waaye doo fekk leneen kon nak bu joge won fukki ruur yàlla la wajadu fii ikhtilafan katiran waye dañ fa fek ikhtilaf katir kon dañ fa fek ikhtilaf qalil luy maanaa bayaniyan su waxe ne la wajadu ikhtilafan katiran لو كان من عند غير الله لوجدوا wajadu fihi ixtilaafan katiran nahnu lam najid ixtilaafan katiran kon ma kon mafhumu bu jóge woon ci kuduur yàlla dangeen ngeen fekk ci wuute yu bari fekkun ci wuute yu bari kon ci yàlla la jóge loolu mooy li nga xam ne mantaqiyan moo koy indi ndax law loolu mu doon yàq bu yàqoo dana am lu muy saxal muy muqaddima ak mawdu ak natiija noonu la ko mantiq di waxe kon nag fekkun ci wuute bu bari kon day ci yàlla la jóge aha bayaaniyan nag gannaaw mantiq fekk nañ ci kon ixtilaafan qalilan ndax comme ne na ixtilafan dal di ci naatal kathiran kon la budd an yakuna hunaka ixtilafan صغيرا أو يسيرا فالاختلاف اليسير في القرآن كوكو اختلاف التعابير لا تي موخ سعير اللق موخ جهنم تي موخ سخط اللق موخ عذاب تي من عذاب أليم اللق موخ مهين لولا اختلافا قليلا كيفك وهذا فك اختلافا كبيرا في الأصول الله هو الله ورسوله هو الرسول والقرآن هو القرآن والخير هو الخير والشر هو الشر إذا لم نجد فيه اختلافا كثيرا من يوتي السياسة الإعلامية al islaamiya loolu mooy politique gu information ci l'islam nee na moo di décret yaag xibaar yi ñu war a génneeg porte parole baag loola nañ ko bàyyee yenint bi mooy tëb ne tey dañuy wàññi ndax noo ngi tukki mooy tëb ne subaar nangami rakk la mooy tëbit ne xare badar fii lañ koy tàmbalee tey la dem keneen ko am beneen xibaar ne noonu ba toll na fii bu ko joxe jox ko yenint bi mooy seet ndax mën nañ ko joxee nii wala mënuñ ko joxee nii loolu mooy censure censure ci ay xibaar islam def ko bëgg ndax nit ki du wone lu mu dégg rek lay wax léegi tey sëb noon di la jekku naa am xibaar yoo xam ne da koy nekk moo tax mu ne fa isa jaahum bu leen dikkalee am amrun ndigal am amni ci kóolute mooy jamonoy sécurité jàmm rek am awel xaw fi wala jamonoy ragal azau ñu dal di siiwal loolu ci lañ jëlee isa muy rajo muy isa azau bi ñu rajal ko ñu siwal ko yàlla ne waruñu woon a def loolu xibaar bu ñëw rek ngeen génnee ci rajo bu wax ko walaw radduuhu buñ delloo woon xibaar ba ila rasuli jëm ci yonent bi mu seet ndax lii war nañ ko waxam déet wa ila ulil amri ak mu dem ca ña yore mbir ma minhum suñ defoon loola kon mooy gën ndax la alimahoo xamoon na xibaar ba la dina ña nga xam ne yestan bi tunoo ñoo koy ballalu ñooy xam ndax lii war nañ ko wax wala deet minum ci ñom kon loolu bu leen ko defati te loolu bari na ci l'islam nañ ko bàyyi bi ak ulil amri mooy mooy ñu yore baat bi ci àddina ñu seet ndax war nañ ko waxee nii wala waruñu ko wax ni bu fekkee siyaasul harbiya la julit ñaa ngi xeex ak yéefar yi julit ñi dem ñu rey ci ñoom lu bari ba ñëw ne rey nañ ci ñoom lu bari boo dal di wax rek dëkk bi yépp tiit mu nekk xarbu nafsiya moo tax axbaarul xarbiya da ngay dégg tey Iran ne def na nangam Irak ne def na nangam kenn du xam ku ci wax dëgg loolu siyaasal xarbi la foog ñu delloo ko ci ulul amri ñooy seet lañ cay waxaat loo xam ne kenn du ko ca wax loolooy a siyaasal ilaamiya fi waqtil xarbi wal amni loolooy xawfu wal amn walaw laa fadlulaay njimte ba ngeen juumoon nag bu ko dégg xibaar gaaw koo joxe te delloowu ko ci kilifa gi donte ku ne ngënal yàlla ci yéen wa rahmatuhu yërmandeem bu mu baal leen loola la tabaatum kon da ngeen topp seytaan ba ku dégg xibaar gaaw koo wax illa qalilan lu mooy lu tuuti ci yéen ñi nga xam ne daan mën a bàyyi secret ba tey ma ngi ci siyaasal xarbiya muy jihaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jógee mawid badru sugra ci at mi topp uxud bañ xaree uxud atam ñetteel atam ñeenteel moo doon badru sugra dañoo jógee uxud rek yonent bi ne ku fekkee wutoon xare ba démb ca uxud bu ma topp ku fekkee woon uxud démb na ma topp mu génn mu ngi ànd ak junne ak juróomi téeméer fukk ca waru fas متب يفري تيتل لين برب بدر متغف دون قار أبو سفيان نخ أبو سفيان بمي دباري قريب أحد ندقكو دفني دفني يا محمد إن موعدك لبدر في العام القادم جونا لا رانديو بدر ديوين ديوين جورنا تي بيسبا يينتي بي تك جوني جيرومي فك واري فاس مو ديم بدر توك دي ابو سفيان نيوت ابو سفيان نيول te amaan na bu Abu Sufyaan ñëwoon indiwaale seen doole joojale du ñàkk moos yàlla mën a dimbale jullit ñi ñu gañe leen waaye du ñàkk ay bakkan yu fa des alquran nag ne na nga ñemeloo jullit ñi te itam bu ñu ragal doole walla nga nay kenn fa qaatil xeexal fi sabilillahi ci yoonu yàlla laa tukallif bul togg illaa nafsaka lu mooy sa bopp lu ne nang ci jiitu loolu moo baax ci kuy jiite ci diine lu ne da nga cay jiitu rek waxaare di nga door a xiir nag al muminina julit ña ca xeex ba asallahu mën na yàlla an yekku fa mu fekk ba sa ladina kafaroo ayu yéefar yi aman na yàlla fekk ko fekk na ko sax far yéefar yi ñëwuñu badru saani wala badru sugra wallahu yàlla ashaddu moo gën a tar ba san ciw ay wa ashaddu moo gën a tarit tan kii lan ci metital bayina na mu ñew ci adabul Quranil karim te giinu ni alquran wax ne nakob julit am ci xeeti teggin mooy sa mbokkam julit bu amé métit jëlal sa kaddu boole kaddoom nga ñaanal ko mu muñ sa julit bu amé xéewal jëlal sa kaddu boole kaddoom nga ndokkel ko mu bëgg sa mbokkam jullit su la nuyoo na ko fay fayin wu gën a rafet sax wi mu la nuyoo soo ko mënul nga jox ko lu toll ni li nga xam ne moom la la nuyoo woon moom la alquran di wax naan te it ne ci nuyoo boobu bokk na ci teggin yooyu ku taxaw na nuyu ki jékki kenn mbooloo nañ nuyu kenn ku war borom boo kuy dox yaa koy nuyu ku tuuti muy kenn na nuyu mbooloo maanaam mbooloo su tuuti na nayu mbooloo mu mag gune na njëkk nuyu mag waaye yooyu yëpp bu ñu koy wax ci nayu nag góor nag warul nayu jigéeni jaambur <coughs> mën naa nuyu nag jabaram <coughs> bu waxee nayu nag mooy asalaamu aleykum wa rahmatullah wala barakaatu waye waxut joxe loxo loolu benen mbir la koku musaafaxa la bokul ak nuyoo sunna si modi assalamu alaykum wa rahmatullah farata ji moy wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fa kayfa bula nit ki waxe assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jeexal na lépp man to ko fay lu gëna rafet yow nga wax ko lu tol nonu bo ne ko wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh wala nga wax ko yiwit mu ne asalaamualeykum yiwit nga ne ko asalaamualeykum wala mu bind la ab bataaxel nga tontu ko la alquran ne man yashfa ku rammu na shafaatan rammu xasanatan mu rafet yàkku nekk la wañeel ko na si bun cër luy rammu fii mooy nga jël sa kaddu booleeg sa kaddu mbokkum julit ci naqar muñ loo ko wala ci bànneex ndokkeel ko mooy yashfa shafaa xasana ku ko def muy ndokkeel wala jaale yàkku nekk la wañeel ko nasibun cër minaa ca la mu def waaye wa man yashfaa ku ramm na shafaatan ramm sayiatan mu bon te loola moo di ak ñaawal ak ak reetaan kooku yàkku nekk la wañeel ko kiflun kooku dootu am nasib waaye kiflu lay am ndax nasib ab cër dañ la ko sedd mu ñeel la di xéewal waaye kiflu dañ la ko dagal mu diw tegu ci sa kaw moo tax mu ne yakun lahu kiflun mina wa kaana musul dañ laahu yàlla muqiitan musul dañ di am kattan yàlla musul dañ di aji wattu ala kulli shay'in ci lépp la lu ci nekk rek yàlla nekk na ca xaafiz nekk na ci muqtadir wa iza uxiitum ndem noyoof na leen bi taxiyatin cim noyoo faxayyoo noyu leen ka leen noyu woon bi ahsana ci kaddu gu gën a rafet minha ci gim leen joxoon bu ko jeexalee bëgg ko gën a rafet amatul aw radduha ngeen delloo ko lu tol ni lool ne laa yàlla kaana musul deñ xasiban di aji xisaab ala kulli shay lu nekk dana ko xisaab fay ca borom allahu yàlla moomu kon laa ilaha déet benn buur may moom moomu nag la yajmaannakum wallahi dana boole leen benn bés ilaa yawm alqiyaama ngeen jëm bés pénc bis boo xam ne laare yi ba dit benn xeeti sikk fii ci moom dangeen ngeen dana leen boole yéen ñëpp ci mel ni pénc mu mel ni dafa am kuy sikk lool ah li ko dalee ci aadama ba ci ku yàlla mujj bind ci àddina ñëpp ñu boole leen ci pénc loolu na muy amee mu ne ah yàllaa ko wax de te kenn gënu koo dëgguy wax wa man asdaqu kan moo gën a dëggu mi ne laay ci yàlla seen wax amut te wax na ko kon dana am mu ñëw ci naafiq yi nin war a jëflantee ak ñoom solo ñu ne sababu nuzuli loolu dafa amoon ay nafiq yu ñëw ne yonent bi ñu ndewaay ay sàmm rekk lanu danoo yore ay gëlëm ki gàtt noo dëkk ci taax yi dañu bëggoon daal sunu digaloon tey noo toxu rek dëkk ci euh, xur yi ak yooyu le ndax suñ gàtt yi am lu ñu lekk yonent bi ne dem leen ñenn ñu ne ñun nag Ah, mu naaxul medine madina climat bi moo métti ci nun dañu bëgg dëkk foo xam ne di naan ci sawam gëlëm yi di ko sam ci xur yi loolu daal lan bëgg yonent bi ne waaw de def leen ko ndekete woo du loolu dañoo feeñal Islam te nekkut ci ñoom bëgguñoo génn mag ñu génne di toxu di toxu di toxu ba makka murtat ay mushrikuun القران نے فما لكم لوغين في المنافقين كي منافق يوي فيتين نياري كوري لاي نياري كوري نونو ني يشهدون لهم بالخير نيلا يشهدون لهم بالكفر موي نياري كوري يوي والله يالا نك ci xewalam ak katanam mu ngi melni yalla kon arkasahum saxal na len delloo na len bima kasbu kasaboo ngir li ñu faggu yàlla walbati arkasahum delloo na len ci kefer ga nek gi nek yonent bi ci dekk bi di julli di wor te amuñu iman nifaq gog motax yalla yàlla len ci kefer ga rek far wallahu arkasahum bima kasabu aturiduuna ndax da ngeen a bëgg nag antax doo ngeen di jubal man abdalallaahu ku réeral na ko yàlla du ngeen ko mën wa man yudlilillaahu laaw réeral na ko yàlla falante ji daa fekk ti la la wóññeel ko sabilan wenn yoon wu muy jubeeti ndax ñoom yéefar yooyu naafeq yooyu waddoo mébétoon nañ sax law takfuroona su ngeen weddi woon kama kafaroon ni ñu weddee lu tax fa takkuunu na kon bu àlaaxira da ngeen di nekk rek yéen ñëpp sa di way yemoo ñi leen añaanee ba mel noonu fala taxido bu leen jàpp minum ci ñoom awliyaay xarit xataa yuhaajiru na ngeen bàyyi ba ñu gàddaayi ñëw madina fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa in tawallaw bu ñu dëddoo fa xuduhum fu ngeen leen gis ci xare bu leen wax ne kii tuuboon na mu ngi dëkkoon Medina dafa gàdda dafa delloon màkk ngir sàmm déedéet fa xuzuhum jàppaleen leen waqtuluhum rey leen leen xay su wajattumum fu ngeen leen fekk wala taxisu bu leen jàpp minum ci ñoom wala yéen benn xarit wala nasran du caa yéen jënnaa ji dimbale ila ladina lu may ñi nga xam ne yasiluuna ñi ngay jokk ilaa qawmin ci nit ñoo xam ne bay na baynakum nekk na seen diggante baynum ak ñoom misaaqun kuulëre lu may koo xam ne nag nii ñu wax ci jikko la mel waaye <clears throat> dafa làqu ci ñoo xam ne si ñëwante nañ kóolëre ak yeneen ba ba duñu xeex bu làqoo ci ñooñu nag bu leen leen rey wala boog koo xam ne nekk ga mu nekk màkk neexu ko dafa amut pexe moo tax mu ne aw jaawukum wala ñu dikkal leen te xasarat xat na su dóoróom seen xol ya an yuqaatilookum ñu xeex yi wala koo xam ne yaa ngi ko teg yéefar ma ngi nekk màkk nëbb ak lislaamam boo àndeeg yéefar ya ba ca xeex ba it tiis na ko moos muy xeex ak julit ndax ñoom moom ñoom a bokk liñ gëm waaye rek euh, doya dem tax na mënul génn ci ñoom kooku bu leen ko rey aw yuqaatiloo wala ñu xeex xaw moom seenu nit wala incha allah bu neexoon yàlla wa salatahum mu xiir leen ñoom yéefar ya aleykum ci yéen fu ñu toll di leen song fala qaatulukum kon ñu xeex ak yéen fa in i'tazalukum su fekkoon ne beru nañ leen dey falam yuqaatilukum xeexuwuñ ak yéen wa alqaw ñu sànni ilaykum ci yéen salaama jàmmoo ga kon ngeen ba leen ndax fa maa jaala laahu deful yàlla lakum ñe leen alayhim ci ku bëgg a jàmm sabilan benn yoon sa tëji doona da ngeen fekkit aaxari na ñeneen ñoo xam ne yuri doona bëgg nañ an yamunookum ñu am ak yéen kóolore ñu am ak yéen sécurité ak jàmm way amanoo ñu wóoluloo xaw moom seen nit ñi kulluma kulluma roddo bépp boo delloof leen ilal fitnati ca kéefër ga urkisoo wal ba teef leen fiyaa foofale fay lam yaatisilukum ñooñu nag bu fekkee ne beruwuñu leen ba génneeku wayal quuñu sànni ilaykum ci yéen sal salma jàmm ja ko foo ñu fegu it ay diyowum seeni loxo loolu bu fekkee ñii defuñu ko fa xusuuhum jàppaleen leen waqtuluhum rey leen leen xay saqitum fu ngeen leen fekk ulaykum seen ñooñ le jaal naa def nañ lakum ñeleen alihim ci ñoom sultaanan am ngeen faw lay ca ga mu biinan lay woo xam ne wuleer nañ la ci ngeen war leen a rey ci seen melokaan woowule léegi mu ngi dellu ci julit bu fekkee ne nit dafa rey ab julit su ko teyul lan la koy yoon teg bu fekkee ne dafa reeb julit te dafa juum liy kafaara bakkaar boobu mooy goreel jaam ak dee ju muy jox ay bokkam lu may ñooñe baal ko ko bu fekkee ne nag ka mu rey ab yéefér la dim noonam te moom mi rey mu dib julit bu mu ko jox déyee muy xaalis bu dana ko xeexee waaye na goreel jaam loolu tegu ci losam la bu fekkee ne mu rey suñu digg ak ñoom dafa am kóllëre gu fi doxoon lu ñu si ñëwante kon nag bu nekkee yéeférit na nga ko jox déyeem waaye goreel jaam bi moom faw mu war la léegi nag comme jaam amut nan la nit kiy def yàlla xamoon na ne danañ dem ba jaam du am mu nekkoon mu woon ñaari weer yu tegaloo mu def kook tuub loola mooy rey ak njumte amaa reyug tey nag moom ku ko def ab la nga xam ne moo di sag pay daal mooy sànjum yàlla ak safara waaye yàlla du ca dellu gannaaw li tax a loolu mooy dafa amoon ku ñuy wax xaaris ibnu yazid mu ngi bokkoon ci bani amir ku soxor la daan néewal doole ku naan Iyaash ibnu abi rabiata di ko néewal doole rek ah ndeke Iyaash moom comme teel naa gëm yàlla gàddaayoon na ma nga woon madinatul munawwara ci yonent bi xaaris nag xam naa léegi moom it lislaam feeñu na ko gannaaw gi mu jóge màkk nag di gàddaay jëm si madina ñëw ba jublu madina rek ci bërëb bu ñaan xarata mu tase fa ak ayaas ne ko tey day moom ba ñu nekkee màkk nga nekk yéefar lu nekk wan nga ma ko waaye comme yàlla la génnee ba nga jegee si Medina fii nga xam ne soo bëggee néewal doole it am keneen ku ma wallu ah te yow ma defante koog yow yaakaar na ne waa ji yéefér la mu ne loolu nag Ayaash dal di defanteeg xaaris ba rey ko ñëw nag wax ko yenent bi yenent bi ne ko xanaa xamoo ne kooku jullit la mu ne ko xaw ko de mu ko nga goreel jam bu gëm yalla loloy sabab bi mata alquran ne wa ma kana yalut li muminin julit an yaqtula muy rey muminan julit ni mom illa khatan qana lu mujum. wa man qatala ku muminan julit khatan ci njumte fa tahriru raqabatin war gorel ko goreel jaam muminatan budaji wadiyatun ak dee joo xam ne musallamatun lu ñuy jébbal la ila alihi ca ñooñ ka ñu rey ka ilaan ya saddaqu lu mooy ñëw saraxee bale ko fa in kaana bu nekkee ki ñu rey min qawmin bàyye ko ciw nit àdduwoon ñoo xam ne noon lañ lakkum yu ñeel leneen julit wa ki ko rey muminun di julit fataaru raqabatin war na ko ko rel jaam muminatin bu gëm yàlla wa in kaana bu nekkee ki ñu rey min qawmin bàyye ciw nit ñoo xam ne bay na kum nekk na seen diggante wa bay nahum ak ñoom misaqun kóolëre fa déyatun war na déye musallamatun juñ jébbal ila alihi ñañ néew ba summa nag wa taaru raqabatin mu door a goreel jaam muminatin bu gëm yàlla fa man lam yajid ku amul nag loolu fa siyaamu shahrayni war na ko woor ñaari weer mutatabiayni yu taftaloo nag lii tawbatan mbir mu mu nekk dig tuub minallaahi gu bàyyee ko ci yàlla وكان مسل دن لاو يلا علي من دياجي قم حكي من دياجي قرلا بورني ومن يقتل كرين مؤمنا جلد متعمدا مياجي تي كرك فجزاؤه اكبيم جهنم موي سفرا خالدا مياجي سخ فيها تي سفرا وغضب الله سنجنا يلا عليه تكوكو ولعنه سرلنا كو يرماندي وعاد قرين لو نيلكو عذابا بوغل aziman moo ne aji metti la mu ne nit ki warul teg warul a gaaw ci àtte am mbir lu may nga xam lu ca leer nga door ko àtte lu ko tax a ay riwaayaat yu bari la ibnu kathir indi ci lu bari naka nana jalaale yi ni indi na ci asbaabu nuzul yi ay riwaayaat yu bari waaye ñoom ñëpp li ñuy wax mooy julit bu nangu ne ab julit la te feeñal ko nga di ko rey loolaa ko tax a wàcc dafa amoon benn waay ibnu abbas mooy nettali bu benn waaye boo xam ne mu ngi bàkko mu ngi bàyyee ko ci banu sulaym dafa romb ay saaba waa jooju bokk ci banu sulaym mi da doon dox romb ay saaba waa ji nag ma ngi doon sàmm ay gàttam ba mu ñëwee ba jublu saaba yi ne leen asalaamaaleykum gaa yi ne seetal waay day noyoo kat ndax bëgg mucc ci nun rek ndax kee yéefar la gaaña dal di song waa ji ci moom rey ko nangu gàtte ya indil ko yonent bi atte bi ñëw nag ñu ne leen yéen gaawtu ngeen kon nag rey gi ngeen ko rey rey njuum la njuumte la fokk ngeen jox joxe dëye bi loolu lay wax ne yaa ayyuha alladina amano yéen gaa ñi gëm alquran isa darabtum dem tukki ngeen fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa tabayyanu na ngeen biir biirlu ay xibaar wala taqulu bu leen wax liman alqaa kuy sànni ilaykum ci yéen asalaamam nuyoo ngeen ne ko lasta muminan gëmoo yàlla dangaa ragal rek dafa mel ni kon tabtakuuna dangeen di sàkku rek arada dunia mattum addina mile muy gaar gaari dunda bi adduniya bu daa jege muy addina mii alalam ji ngeen soxla te fa indallaahi nekk na fa yàlla magaani mu ay màng nga yu bari kadalika naka noonu yéen noonu mu nekkee benn waay bu tumuranke kenn xamut ak njulitam noonu yéen kuntum ngeen nekkoon min qablu ci jëkk fa man allahu dafa xéewal yàlla rek aleykum ci yéen lislaam kon fa tabayyanoo na ngeen di biir biirlu inna laa yàlla moom kaana musumoo dañ xabiran daa ji dañ kump bi ma taamaloo na ci la da ngeen def ko kon am na ci yéen ñu defoon dara te xam na ko jihaar ci yoonu yàlla nag lu baax la lu am ngëneel la bul yaakaar ne mukk ki jihaar ci bakkanam wala ki jihaar ci alalam ki jihaar ci aw làmmiñam bul yaakaar ne day yem ak ki toog rek mu ne waaye dara ji jihaar yooyu li ñuy rawaatee terewul ku ci nekk rek yàlla dël na ko aw yiw loolu lay wax ne laa yastawi du yem alqaaiduna way toog ya min almuminina ci julit ña gayru uli darari ñi nga xam ne amuñu genn lor amuñ benn ngant ñu toog rek bañu jihaar du ñu yem mukk wal mujahiduna ñi jihaar fi sabilillah moo xam bi am waalim seeni alal la wa anfusim ak seen bakkan la fadallahu gënal na yàlla fuuf way ya bi am waalim ci alal ya wa anfusihim ak seen bakkan alal qaidina mu gënal leen way ya lan darajatan ci ay daraja ko koy tamisi ja waaye wa kullan képp ci ñii ki jihaare bakkan ak ki alal képp ci ñoom ñaar waadallahu deel na ne yàlla alxusna aljanna wa fadalallahu gënal na yàlla nag almujahidin ala alqaidina ci ñi toog ajaran ci yool aziman bu daa ji mag gënal na leen ajaran aziman jihaar nag darajaatin ay daraja la min hu bàyyi ko fa moom wa maxfiratan ak njëggal wa rahmatan ak yërmande wa kaana musul dañ laaw yàlla gafuran di bale akoon rahiman di aji yëram ñi jiyaari woon ci yoonu yàlla duñ yem ak ñi toogoon bañ a dem lii ci ñoon lañ ko wàccee dafa amoon ñoo xam ne bi ñu duggee ci lislaam dañoo toogoon gàddaayu ñi toog ci biir màkk rek jaxasoog yéefar ya ñooña yore seen lislaam ci biir màkk ñuy xas yonent bi ci seen kanam ñu di ca noppi ñuy xotti ormay lislaam ñu di ca nopp yi te nekk jullit toog ci biir màkk gàddaayu ñu ngir sowe seen aqidal islaamiya am na ci ñoom ñoo xam ne dem nañ sax ba ànd ak yéefar ya ca xare badara te nekk jullit nekk ca sappe yéefar ya bañ rey leen ca ñu dem safara moo tax alquran ne inni na naka ñooñu nga xam ne te wafaawum faat na leen almalaayikatu malaaka ya ca xare badar zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp ci ñekk gàddaay xaaloo buñ dekkee ci bàmmeel ñi wax leen ne fi ma kuntum ci lu ngeen nekkoon xaaloo ñu naan ku naa nekkoon nañ mustadafina di ñu néewal doole filaar di ci suuf xaaloo malaaka yi tontu leen ne alam takkun ndax nekkutoon ardulaay suuf si yàlla si waasiatan di aji yaatu fa tuhaajiroo ngeen gàddaay fiha ci suuf si walaayika ñooñu maa waaw mi seen tàppuwaay jaar na mooy safara wa saat bon na ma sëriñ ci mujj ay ñëpp lay doonam yëpp ñu gàddaayu rek safara lañ jëm mu ne ilal mustadaafin lu may ñi nga xam ne dëgg-dëgg dañ leen a néewal doole amuñu lu ñu war ba ñëw Medina amuñu alal ji ñu fayee min rijaali ci góor ñëwa ni saa yeeg jigéen wala daane ak i gune ñi nga xam ne laa yastatiuuna amuñu xiilatan benn pexe ci suñ jógoon dox ak seen tànk laa yahtadoon duñ mën a jub ba xam yoon wa sabilan yoon wi jëm Medina walaayika ñooñu nag moom asallaahu mën na yàlla kat an yaafu mu baalaanum ci ñoom ndax wakaana musul dañ laaw yàlla afuwoon di baleyaakoon xafaran dee ji jéggale wa man yuhaajir ku gàddaay na fi sabillaay ci yoonu yàlla daw ak diineem yajid dana fekk fi laa ci suuf maraxaman toroxalukaayu seytaane gi ko tere woon a gàddaay katiratan bérébu toroxalukaay bu bari dana fa gis seytaane bi la tere jàmm yàlla danga fekk béréb yu bari yooyu jàmm yàlla ba toroxal ko ca wa saatan dana am yaatu ci wërsëg wa man yaxruj ku génn na min baytihi jógee ci këram muhaajiran daa di gàddaay ba léegi baytu boo demee makka ak kër la cay tekki ila laay jëm ci yàlla ndax lugatul xijaaz al baytu maanahu daar wa rasuli ak yonentaam su ma yudrikoo topp jot ko almawtu dee ku génn ci këram ne damay gàddaay moo xam damay gàddaay ngir wuti xam-xam damay gàddaay ngir daw sama diine dem foo xam ne fa nekk damay gàddaay ngir daw sama aqida al islamiya waaye jotul àgg suma ma jot ko ci yoon wi almawtu dee kooka baal rek ene ja matna faqad waqa'ta bina ajruhu yoolam lahi waral yal na wa kana musul dagn laaw yàlla xaforan di balea koon rahiman di yéramaa koon léegi mu ngi ñëw ci salatu safar salatu safari ak salatu xawf bu fekkee nit ki dafay tukki sharia moo ko may mu wàññi gépp julli gu nekkoon ñeenti rakk loolu la ko sharia may sax na ci yenent bi mu def ko ndax dégg nañ ci Abu Bakar ak Omar ak kibaaru saxaaba yi ñoom ñépp ñu def ko ba ci tàmbali xilaafatu Usmaan Tu subarak ak takkusaan ak ge ñaari raka lañ koy julli mata ngir ngërëm abu hanifata mom mu jele ci ne kon wañi julli ci ci tukki lu war la ba kenn du ko ngir am hanafiya wañi julli ci tukki lu war la ndax lolu nga xamne ne yonent bi da ko daan def ak saaba yooyu bo demé ci li shafii dañu wax ne lu war permission rek la manam may nañ la bu la neexee nga wàññi bu la neexee doo wàññi yi loolu lay wax ndax itam boo demee ci ngeeru Malik ñoom dañuy wax ne sunna la boo ko defee ndax Usmaan radiyallahu an Usmaan nekk na ci waxtu ak ci minan dal di julli matal julli ci mina te dafa waroon a wàññi loola nag gaañ taawil ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci mazhabul qasri dañoo taawil ne boo gisee loola usmaan dafa amoon jabar ci Makka kon bu fa ñëwee dafa mel ni ku fa dëkk ñooñu loolu ñu taawil ñale ne déedéet liñ ciy taawil kay mooy ku doon wàññi su ko neexee mu lànk dal di matal waaye almuhim almalikiya daal salaatul qasri sunnatun masafa bi nga xam ne nag way bi nga xamne ne ku ko dox war nga wàññi julli sori way bi nga xamne ne ku ko dox sañ nga ñaka wor lepp bu jexé nga fay am ñu wax ne dox ak ñetti fan ñetti fan ak moy guddi ak bëccëg ya. ci gëlam guy doxé ndank nee lola al alxajaasi ñu ngi koy près ci 81 km juroom ñett fuk ak ben maliki yoo ñu ngi wax ñeen fukki kilomètre ak ñaar wala ñeen fukki mayel ak ñaar su fekkee mayel la bi l'inglésia day ëpp kilomètre yenn kilomètre ak génn wala waaye li gën a léemtu daal te gën a am solo te li gën a bari ci ngelum ngerum malik di ko atte woo moo di ne gis nañ ne abdullah ibnu omar ibnu alxataab jóge na makka ñëw jidda wàññi julli te juróom-ñaar fukki kilomètre la ñu ne kon loolu mooy al masafatul adna foog na ma 70 kilomètres ndax ibnu omar loolu la defoon loolay salaatul qasri yi tusubaar takkusaan ngay wàññi ak gee timis duñ ko wàññi suba wàññeeku na ba pare ñaar la boo gisee alxayrawaani tuddee tuddee gee eh, timis salaatu shahidi moo di ne kuy tukkee ku du tukki yépp ñetti rakk rek lay doon xam nga ne julli yu nekk wiitar ci lay mujjee julli guddi gannaaw julli gee shafa wiitar mujjee benn rakk julli bëccëg bi yépp timis leen di wiitaral moo tax kenn du ko wàññi léegi mu des julli ragal euh, bu fekkee lu mel ni julli ragal la moo di bu fekkee jiyaar dafa am nga xam ne ñu nga ca noon ba buntu dëkk bi julli ragal rekk la ñuy def te duñ wàññi bu fekkee noo nga ak noon ba fu ca sori sa nu boole julli ragal ak julli wàññi kay fa noon bi jege na ba duñ wàññi julli ragal la tusubaar la ilimaan na julleeg genn wàllu xare bi ñaari raka bu toogee taaya ñooñu jóg indi ñaari raka sëlmal dem jël nga ngànnaay ya ñeneen ña ñëw kàbbar ci gannaaw ilimaan mu jóg julleeg ñoom ñaari rakaa toog taaye sëlmal gaa yi it mottali sëlmal loolu mooy xawf waaye nag du safar bu fekkoon ne dafa boole xawf ak safar kon noonu la ilimaan di def waaye taayifa bu nekk benn rakaa lay julli ak ñoom moo tax ñu jàng ci sunna abdullah ibnu omar bañ ko laajee in xiftum an yaftinakum ladina kafaru nenañ ko koon jullig ragal day yalla daf ne woon su ngeen ragalee yéeféer yi fitnal leen kon mo ngi melni ni ñu ne kon mo ngi melni julig ragal rek ci lañuy bu mën wañi waye julig dox gu ñuy wàññi ñun gisuñ ko ci aaya bi ndax aaya bi kat dafa wax ne su ngeen ragalee yéeféer fitnal leen kon wañi ci julig ragal ñu xam waye wañi ci julig dox xamuñu ko loolu lañ laa jowoon abdullah ibnu omar ibnu alxataab ne ko léegi ragalun nag ibnu omar ne leen wàññi ci tukki sarax la bu yàlla sarax ab julit ay ku tol ni yàlla bu la joxee permission mu ne jël ko nag bu ko won ne soxla woo ko loolu lay wax ne wa isa darabtum bu ngeen tukkee filaar di ci suuf fa laysa aleykum waru leen junaaxun bakkaar an taqsuro ngeen wàññi mina salaati ci julli in xuftum ngeen dem ragal ngeen kay an yaftinakum di fitnaal leen lazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ ndax inal kaafirin nak yéefér yi kaanu nekk nañ lakum ñu leen adduwan di noon mu beneen yi di way biir wa isa kunta boo nekkee yow yonent bi wala yow ilimaan fiim ca nit ña ca julli googa fa aqamta nga taxawal lahum ñi leen salaata julli faltaqum na taxaw taifatun ab kuré minum ci ñoom maaka ànd ak yow wala yaaxudu nañ jël asliyatum seen i ngànnaay fa ida sajudo benn raka wala ñaar rek nañ dem fal yakunu na nekk min waraayikum seen gannaaw wala taatina di ko taayifatun kuré uxra beneen lam yu salloo bu a gutoon fa yu salloo ñu julli maa ko ànd ak yow la ca des wala yaaxusu ñoom it nañ jël seen ak wattandiku wa asliyatum seen i ngànnaay wadda mébétoon na sax la sina kafaroo yéefar yi law tax su ngeen toogoon ba yàgg yit ngeen dem di julli sàgganee an aslihatikum seen i ngànnaay ya wa am ak seen yére fa yamilu nañu in kaana bu nekkee bikum ci yéen asan lor min matarin nga xam ne ab taw la ñëw nañ ba ci jàkk ji di julli timis taw bi dal di sóob kon am ngeen nganta aw kuntum wala ngeen nekk marda di way opp am ngeen nganta ci ñàkk xare ji anta daaw ngeen sippi asliyatakum seen i ngannaay wa xusoo jël leen xisrakum seen ak wattandiku inna laa yàlla aadda xare na lil kaafiriin ñeel yéefér yi aadaaban mbugal moo xam ne muhinan aji doyadal la mu leen fa ida qadaytum su fekkee ne jeexal ngeen salaata julli faskurullaa na ngeen tudd yàlla qiyaaman bu fekkee dañ leen a bett nag julli gale man jeex na léegi di leen tudd yàlla rek qiyaaman yéen a nga taxaw wa quudan yéen a nga jékki wa ala junubikum yéen a nga tëdd ak seen ak wet yépp nu ngeen jullee baax na fa ida atmantum bu ngeen wóoloo nag fa aqimoo na ngeen taxawal salaata julli ci ni ngeen ko xamee woon ndax ina salaata nag jullikat kaanat musumoo dañ alal muminina war julit ña kitaaban nekk di téere boo xam ne kitaaban di lu ñu waral loo xam ne mawquutan lu ñu sàkkal la ay waxtu yoo xam ne yu ñu xam la ñu war ko ca def ba tey mu ngi ci jihaar wala tahinu su fekkee ne jóge ngeen ci xareb uxud am ñu ñu jam ñu di ko mettit lu xanaa fàtte ngeen démb xare badar yéen it defoon ngeen leen noonu moo tax sama borom ne wala tahinoo bu leen doyadi fi ibtigaayil qawmi ci sakku yéefar yi maanaam ci dabi leen ci xeex in takunu su ngeen nekkee ta'lamuuna di yëg ay métit fa innahum yéefar yi it ya'lamuuna yëg nañuy métit kama ta'lamuun ni ngeen di métit loo te yéen wa tarjuuna yéen a ngi yaakaar min laay ci yàlla maa loo xam ne ñoom laa yarjuuna yaakaaruñu ko wa kaana musul dañ laahu yàlla aliman di aji xam xakiman di aji بين لول إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق بجا عليك عظيما لكو تخواج أي روايات يباري رتنج وأي الحجازي دنا جي تان دارا يمو جي تان موي دمام دفاي وخني كنان تعمت ابن أبيرق من تعمت ابن أبيرق benn waay la ci lan saar bokk ci bane zofr mbir mu doy waar moo ko daloon ak càcc la woon càcc ga nag mu weeru weeru bu bon a bon ndax dafa sàcc mel ne mbubam koŋ mu ñu taxañ lem ko dugal ko ci génn mel ni mbuus mu tekki mbuus ma sàcc mbubu ma ndeke mbuus ma fariña ca nekkoon ba mu lemmar cee mbubbi koog ma rek fariñ ba di di sotteeku mu génneeku muy sotteeku rek def ak sawtan topp ko yëgu ci dara muy daw rek ak moom mu dem nag ci benn yahut bu naan Zayd ibnu Samin dénk ko mbubb mi ah waa ji yëg ne mbubb mi sàcc nañ ko muy muy muy xeeñtu nag ñu gis nag sawtanu fëriñ bi rek gaañ a topp ci topp ci rek topp ca ba ñëw ca fi ñu ko dénk ne ko ah, ñun de waaye li ñuy xeeñ fii la dugg waa na ah, man de yoruma ko ñu ne ah, mbubum koŋ la de fii la dugg mu ne ah man de kuñ naan tuumata moo fi dénk mel mbubbi koŋ te fekk na tuumata laaj nañ ko ko mu ne amut yoru ko nekkul fi moom toomata géñloo nañ ko mu géñ ne jëlu ko léegi nag ba ñu toppee fëriñ bi ba ci ibnu samin ibnu samin ne moom a ko dénk ah ay nit dal di jóg seede ne ah yi moo ko fi indi ci waxtu sàngam toomata weddi woon na ko banu zofra nag ñoom ñëpp ñu dal di jóg nag ne dañoo jiñ sàcc mbir maa ngi ñu ngi ko fekk ci benn yahut ëllëg ñu teg ko ko ñu ne suñ waajee ko sàcc nañ dem ci yenent bi mu àtte ñu ñu daw nag dem ci yenent bi ñu lay waaja lay yenent bi ne léegi day géñe ci des soo géñee te sàccoo ah kon mucc nga waaye boo géñee te sàcckat kon alku nga te itam yàlla mën na laa weer yahud bi daal di set fekkee moom jëlu ko ndax moom am nay seede te yow amulay seede waa nag nangu ne dafay géñ te léegi su géñee dañu war a euh, mbugal yahud bi mu géñ ñu war a bugal yahud bi te deful dara alquran wàcc ne déedéet du moom waajee la tuxmata daw génn dina dem Makka far murtat yonent bi ne alkuna ndax génne ci lu dul dëgg ngir alal alkuna mu daw dem Makka daldi di murtat toog fa benn bés rek ndeysaan dafa toogoon doon kerlu ci benn miir miir ba daanu ci kawam mu dee dem safara alquran ne inna ñun anzalna wàccee nañ ilayka ci yewal kitaaba téere bi bil xaq ci dëgg li tax ku ma ngir ngay àtte rek bay na naa si diggante nit ñi bi ma araaka ca la wan la ko laahu yàlla wala takun bul nekk nag xasiman di aji farle ci xuloo lil xaayi na ñeel way way wurujja wastaxfirillah na nga balu yàlla inna laa yàlla kaana musumoo dañ xafuuran di aji bale rahiman di aji yërëm wala tujaadil bul dàgge sante ani lazina ci ñi nga xam ne yaxtaanoona dañuy wuruj anfusahum seen bopp inna laa yàlla laa yuxibu du fay man kaana ku nekk na mu axuwaanan di wuru jàkkoon asiman ku di aji bakkaar yastaxfoona ña ngay nëbbu mina naa si ci nit ña waaye wala yastaxfuun duñ mën a nëbbu de mina laay ci yàlla ndax waxuwa yàlla moom maa wuma ànd naag ñoom is yu bayituuna ba ñuy fanaanoo maa ci pexe moo xam ne laa yarda gërëmu ko minal qawli ci wax wa kaana musul dañ laahu yàlla moo xiitan di aji xam xam-xam bu léem bi ma yaamaluuna ci la dañ def ko haa jàppal haawulaay ñii antum yéen haawulaay ñi jaadaltum yéen a ngay dàggasante anhum ak ñoom fil hayaat dunya ci àddina su fekkee àddina bi yéen a ngi dàgg sante di layal seen i mbokk ak seen xarit ci lu du dëgg waaye bu leen yàlla jàppee fa man yu jaadilillah ana kan mooy dàgg yàlla anum ci ñoom yowmal qiyaamati fii ci àddina sa mbokk mën naa nekk ci kat ci nga layle ko ba mu rëcc ca yàlla ne ba ma ko jàppee kan moo koy layal foofu am yakun man yakun ana kan mooy nekk nag wakilan di ko xam ne day nekk seede ñuy sukkandiku alim ci ñoom yowmal qiyaam ana ci kan lay sukkandiku bu fekkee ne fii lu nekk mën na fi am waaye ku ma ci jàpp ana kan mooy dof sama digg ak yow wa man yaamal ku def na daal soo an lu bon aw yadalim wala mu tooñ nafsahu boppam su ma yastaxfir mu balu laaha yàlla yajit dana fekk laaha yàlla ghafuran muy bale akoon rahiman ku daaj yéram waaye wa man yaksib ku faggu na isman bakkaar fa innama yaksibu naka dana ko faggu ala nafsi ci boppam boppam rek la koy def wa kaana musul dañ laahu yàlla aliman di aji xam xakiman di aji xarala wa man yaksib ku faggu na xatiyatan aw ñawteef aw isman wala bakar, suma ma yarmi mu sakku bari an nu mu dañee bii ca bakar ba jéem caa dañ di wuti pexe ka géñ kooka kooka faqad yenu na buhtaanan aw nar wa isman ak mubinan mu binan bu daaji biir walaw la fadlullahi donte ko nag yërmande yàlla kooku yonent bi la ak ña doon atte ñi nga xam ne bëggoon nañu sax jël yahud ba dagg loxoom yaakaar ne moo sàcc yàlla ne walaw la fadlullah donte ko nag yàlla alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandem la hammat kon yittewoo taxifatun ab kuré minum ci ñoom an yuddalloo ko ñu réeral la ba nga mbugal ko deful dara waaye wa maa yuddalloona duñ mën a réeral ila anfusum lu mooy seen bopp wa maa yadurruunaka duñ la mën a lor min cheyin ci dara wa anzalallah wàcce ne yàlla aleyki ci yow alkitaaba téere bi wala xikmata xam-xam bi jëriñ wa allamaka xamal na la yàlla maa loo xam ne lam takun nekk loo woon taalamu di xam ko wa kaana musul dañ fadlu lay ngëneel yàlla aleyka ci yow adiman di aji bari moo tax nga mucc ci loolu te itam nag bay na loolu mu ngi ñëw ci najwa mooy gise ak ndeyaaleeg sekre mu ne bépp gisee bu ay nit beru di ko gisee nee na aw ay rekk lay doon dara baaxu ca lu may gise boo xam ne suñ ko defee buñ fa jógee dañuy digle sarax walla buñ ko gisee dañuy wax lu doon yàqu ñu defar ko wala buñ ko gisee aw yiw lañ fay wax lu may boobu gise rek nee na baaxut euh, tuamata mu ñu waxoon ibnu ubayriq wa seen waa kër ahlu tuamata dañoo nekkoon Medina ñoom te waxoon nañ léegi ne tuamata mujj na daw dem Makka murtat dee nekk yéefér moom nag seen waa kër yooyu ak mbokkam yooyu ko doon dimbale dañ daan def bu guddee ñuy gise di seet nan la ñuy yàqale yenent beeg nan la ñuy woreek nan la ñuy defee bàkkaar ak pour fu ñuy def ay pexe ba wor alquran ne laa xayra déet benn xeeti yiw fi katiiri nekk ci lu bari min najwaahum ci seen ndeeyale ya illaa man amara lu mooy ndeey loo xam ne dañ fe dañ caa digle bi sadaqatin ci sarax aw maarufin wala yiw aw islaahin wala yéwénal bayna naas yi diggante nit ñi wa man yafaal ku def na zalika ndeey loola ibtiraa mardatillahi ngir sàkku ca yërmande yàlla kooka fa safa nootihi xal si nañ ko jox ajaran yool asinan bu daay ji màgg wa man yushaqiqi ku wuute na rasula yonent bi nag min baadi ma tabayyana gannaaw bu biree la wañeel ko lahu daa njub wa yattabi mu topp gayra sabilil muminin weneen yoon wu bokkut yoonu julit ñi nu wallihi danañ ko méngale lam doon liggéey maata walla li mu doon dëddu ak bañ wanus lii ñu jaaral ko jaanama safara wa saat bon na masaran ci muj inna moom am na lu ko metti moo di bokkaale da koy baamu moo tax doo fekk ci alquran ixtilaafan katiran li mu waxoon lay waxaat rek inna laa yàlla day la yaxfiru du jéggal an yushrika ñuy bokkaale bi yeeg moom wa yaxfiru dana bale nag maa doona zalika lu dut bokkaale li man yashaaw ñeel ku ko neex lu mu ci bëgg teg fasaha di taxul mu baamtu ko daf caa bëgg teg ne wa man yushrik ku bokkaale na billaahi ci yàlla faqad dalla réer na dalaalan ak réer bàyyi den gu sori dëgg ki ngay jaamu wala li ngay jaamu te duhut yàlla ñenn ñi sax seen xërëm yi turi jigéen lañ yore ñenn ñi ay jinne ñenn ñi malaaka in yadacuuna déet ñuy jaamu min duni lu dul yàlla ilaa inaasan lu muy ay jigéen in yadacuuna déet ñuy jaamu ila cheytaan maridan gudaay ji fettéerlu laanahu llahu soril na ko yàlla yërmande moom cheytaane boo ko yàlla bindee la ko la ko alak soril ko yërmande wa qaala mu ne ko laa taxisanna wallahi yàlla koom alak nga ma basaril ma yërmande danaa jàpp nag man seytaane min ibadika ci sa jaam ya nasiban ab cir mafruudan buñ may dogalal danaa fexe ba lépp lu ak ni di def rek ma fexe ba ñu wutal ma cëb cër dama dama seytaane da koy topp ñii seytaane da leen topp bu ñu yeewoo mu jox leen ab cër bu ñu tuuru ndox ci bunt kër gi ku génn du baax am nañ ci cër ñii seytaane topp leen balaa ñoo nelaw dañuy tibb luñ tuddeeb sarax fas ko ndax ñu fekkee ëllëg mu topp leen ñu seytaane topp leen ca ni ñuy takki jabar ci aada ya ak bidaaya ñi mu topp leen ca doom ja ya ñu koy gàdd ak ñu koy takkal ak ya ñu koy lonkal fu lépp mu topp leen ci loolu seytaane ne yàlla ba maag ñoom lu ne rek danaa ca ab cër daa leen topp ci lu nekk laa taxidanna min ibadika nasiban mafruudan wala udullannahum wallahi dinaa leen réeral wala umanniyannahum wallahi dinaa leen mébét loo bañ fàtte la wala amurannahum naa leen digal danañ ma topp wala yu batti kan danañu dem bay xar aadanal anaami noppi juru kër gi sax di ko xar naan mooy tax seen nag yi di yokku mooy tax seen bëy yi di yokku mooy nekk si ni ngay nooki wala amurannahum wallahi danaa leen digal wala yu gayiran daa leen topp ba danañ dem bay soppi fara xalqallaahi bindu bi yàlla ki meloon nii mu jamtuñu mu ñuul ki meloon ne mu xeesal ndax mu ndax du ñuulati ki meloon ne mu njocc fii ndax mu am ay mandarga daa leen topp ba loo yuxayirana danañu soppi xalq bindu bindub yàlla bi waaye wa man yettaxisi ku ku ku jàppana cheytaan waliyan mu méngoo sa mbir min dooni laay nga bay yàlla kooku faqad xasara perte na xusraanan perte mu bineen bu bir yaiduhum ma ngi leen di dël wa yumanihim ma ngi leen di loo waaye wa maa yaidum du leen del cheytaan illaa xuruuran lu may ay wor ulaayika ñii maa waawam seen tàppwaay jahannam mooy safara walaa ji doon a fekkatuñu maxiisan benn dawwaay anaa ci safara wallazina ñi nga xam ne nag ñoom amano gëm nañ wa amilu ñu jëf asaliati farate yeeg naafile yi sanudxilum danañu dugal leen al aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taxtiha ci suufam al anhaaru yali yent xaalidina ñu di way beelu fiha foofale abadan faw waad waadalaay dëlab yàlla nga ko xaqan dëgg la wa man asdaqu kan moo gën a dëggu min laay ci yàlla xiilan ay waxte wax na ko ba pare mu ñëw ci al amaani al amaani moo di nit ku nekk boo ku ràcc rek ci sa kanam ngay teg kii dafa ñëw ne yoon wi ma nekk moo gën kii ñëw ne déedéet man sama yoon moo gën ku nekk rek di wootee jëme ci boppam alquran ne déedéet mébéti kese rekk du baax mébét ma day ànd ak dëppoo kitaab ak sunna ak jëf ju baax ba loolu amut mébétam kese du baax laysa bi amanikum duhut ne seen mébét yéen julit ñi mooy am muy aljana ñi leen yéen dong déedéet wala amani ahlul kitaab li yahud waxit ne ñëw Cheikh Abdoulaye al Muxtaar nahnu abnaa'ullaahi wa ahibbaahu leen loolu it amut lan mooy qaayida amma luy régal bi man yaamal ku def na rek soo alu bon ujza dafi fay ko bii ci loolu wala yajid du fekk law ñel ko min dooni lay ku dul yàlla wala yéen kuy méngoo mbiram walaa nasiran du am ku koy tere wa man yaamal ku def na min asaalihaati ci xeeti jëf yu yiw yi ànd ak imaan min dakkarin ca laala moom góor la aw untan wala muy jigéen wa huwa te bu muy jëf jëf ji baax ji muminun ma ngi and ak imaanu billah ñoo ñu rek yadxuluuna ñuy dugal janna wala yudlamuna defu tooñ le naqiran la toll ni naqiir yàlla nee ma ngoog ak maandoo ngoog wa man ahsanu ku gëna rafet diinan diine mi man aslama ku jébbal na kanamam lillahi ci yalla ku gëna rafet koku diine amut wa huwa te mom muhsinun muy aji rafetal imaanam wa tabaa mu ibrahim diine ibrahim hanifan muy aji jangol lepp lu jang wa taxasalaahu ndax jàpp na yàlla ibrahima xalilan mu dib xarit kon ku topp diinam yaa ngi ci jub wallaahi ñeel na yàlla maa fi samawaati li nekk ci asmaan wa maa fi ardi ak li nekk ci suuf wa kaana musul dañ laahu yàlla muxiitan bi aji xam-xam-xam bu wër te léem bi kulli cheyin ci lépp lëf mu ñëw nag ci li nga xam ne moo di ifta ak li nga xam ne itam moo di ay problème yu aju ci jigéen rawatina bu fekkee ku néew doole la rawatina bu fekkee itam dafa dib jirim nga yore ko na nga war a dëkkee ak moom al mooy ñuy laaj ci diine nga tontu babun xatir bunt bu am danger la ndax it mbubbu yàlla ndax yàllaa ngi tuddee fii boppam mufti yàlla rek moo tudd mufti tuddee ko boppam bu fekkee yàlla mooy mufti nag kon ku ñu solal mbubb moomu war ngaa xam ne moomoo ko looloy waral ulamaawu sharia ak fuqaawu yépp ku ci àtte àtte bu jeexee nga ne yàlla rek a xam téere boo jàng ba mu jeex wallaahu aalam ci lay jeexee ci ifta ndax ñoom ñëpp dañoo xam ne du seen mbubb mbubb yàlla ku sol mbubbu jaambur boo jeexalee nga jox delloo ko borom moo tax sama borom ne wa yastaftunaka ñu ngi laaj la fi ni saa yi ci mbiram jigéen xul waxal ne allahu yàlla tey nag yuftikum mooy nekk seen mufti fii na ci mbiram jigéen wa maa yutla ak la def na jàng ko ci yéen fil kitaab bi ci téere bi fii yataama nisaa yi ci jirim yu jigéen yi alaati ñi nga xam ne laa tuutunuhunna bëggu leen leen a jox maa kutiba la farataleef na ko la wun na ñaan leen wa na te ngeen bëgg antan kii xuuhunna ngeen denc leen amul aw xeet amul ku ko yore bëgg nga kaa denc bëgg kaa nax doo ko jox can gi mu yellool ndax amul ku ko taxaw mu ne loolu su ngeen ko bëggee wal mustadafina ak ñu ñu néewal doole ñu mel ne wildaani ci gune yu góor yi nga xam ne bëgg ngeen leen utal jabar te yéen leen yore te seen bàyyi dundul yàlla ngi leen di laaj wax ci loolu an taqumu na ngeen ca taxaw li yetamaa ci jirim yooyu bil qist ci maando wa ma tafaaloo lu ngeen def min xayrin ci yiw defal ko jirim boobu réerut ndax fay na laa yàlla kaana musul dañu àlima ndey xam bii ci loolu léegi nag wayin imraatun dem jigéen xaafat moom moo ragal min baaliha ci jëkkëram nu suusan ak suusint léegi nag góor gi moo bëgg a fay walla góor gi moo ñaaw jikko aw iraadan wala dëddu te mu bari na ci góor ñi ñaaw jikko ñoo xam ne dañuy gedd dañuy soosin te dañuy def iraat loola bu fekkee ndaw see ko ragal jëkkëram a ni mel falaa junaa amul bakkaar alayhima ci ñoom ñaar an yusliha ñu yéwénoo baynahuma sulhan ak yéwénoo ñu yéwénoo ci ku ne dem saw yoon ndax wa sulhu yéwénoo kat xayrun moo gën ñuy dem ci yoon ak yéeg ak wàcc woo xdurat teewaleef na a soxa nay alaan fusu ci bakkan yépp bakkan yi dañu nay moo tax ñuy bañ yéwénoo naan dama koy xiitxiital ba mu fay ma sama alal nay googu mu ne moo koy indi waaye way in tuxsinoo su ngeen rafetaloon mënatoo koo denc baal mu dem wa tattaqoo ngeen ragal yàlla fay na laa yàlla moom mu kaana mosul dañ xabiran daa ji dañ kumpa bi ma taamaloon ci la dangeen ngeen def ko su fekkee ne nag danga nga kaa denc denc keneen wala nga denc ñeneen nga déggoon ci aaya ji ca gannaaw ñu ne la woon ku ragal ne du maandu na yem ci kenn bam ko déggee yow nga tiit ne ah man kat mënuma mando ndax man mënuma suma xoolee kii xool kii mënuma suma joxee kii jox kii mënuma ni ma bëggee kii ma bëggee ko kii te yàlla nee na nan ko def man day loolu mënuma ko alquran ni déet maando gi ma la waxoon duhut gi nga foog ndax gi nga foog moom manoo ko yam manoo ko waaye almaddiya la mando ci matériel laa la waxoon waaye mando ci xol bi nag manoo kooku loo ko jéem-jéem doo ko def moo tax ma ne walan tastatiu du ngeen man du ngeen man mukk nag ca kanam ba faw an loo ngeen di maando bay na nisaa saay diggante jigéen ñi ngeen di denc mënu leen cee maando ba xol bi ni mu bëggee kii mu bëggee ko kii te loolu nag yàlla ne maa leen bind te maane wala waxarastum te xër ngeen di du ngeen ko man kon lu ma leen sant falaa tamiloo bu leen jëng rek ku lal may li gépp ak jëng ulamaul ne bu yàlla ne kullal may li bu leen ko def moom la aaye waaye baadul may li kon bana ko fi fala taamilu kullal may li kon hunaaka baadul may li aljaiz moo tax mu ne fala taamilu bu leen jàng kon kullal may li ko ñu ne xamuñ kullal may li xanaa kullal may li mooy kii nga gën a bëgg rek ci kii mën naa am jikkoom la mën naa ci yow rek la xaalul mooy kulal may li mu ne déedéet kulal may li mooy fa tasaruha nga bakken naka كالمعلقة نيكي لايتن بنيو أج دوكو لك دينكو أجي كنن لككو لولو موي دوكو وجيت بو أيد لجيس من لولو موي كل الميلي فتزروها كالمعلقة لولو الله أخبرين كدف وين تصلحوا سنين يوينوون وتتقوا من رجل يلا فإن لا يلا كان مسلم دين غفورا دي بالي رحيما دي يرم وين يتفرقا بو فكي نك دينيو دمب أندمون الأم بنيو تيقلي كو بويد دو تريك yàllaa fi nekkal ku góor moo fi nekkal ku jigéen yuxni laahu dana doyluloo yàlla ku leen képp ci ñoom min saati ci yaatoom ga wa kaana musul dañ laahu yàlla waat seen di aji yaa man di aji xarala mu ñëw ci kàttanu yàlla mu ne yàlla am na kàttan loo xam ne tey ci zamaanu makkaan mën nga ko faa gis jamono ji ne kàttanam mën nga koo gis béréb bu ne kàttanam mën nga ko fay yëg kon nag li ma am ci kàttan dafay tegtale ak matam dafay tegti tekki ne kon moom rekk lañ war a jàmm xam nga ne ci àddina yépp suñu dee woon yàlla mën na fi indi ñeneen te ma ngi koy def sax waxtu wu nekk ma ngi recensé di yóbbu di indiwaat ñu bees kon nag dem ak aji dem du yëngal ci nguurug yàlla gi dara dikkug aji dikkit du ko yokk tus ku fi ñëw daal ñëw nga fi bu sa dem jotee da nga dem jant fenkaat so danaa wax gaa yi ne montre bi nga takk sax du taxaw kenn ne takk rek mu wéy dara du fi soppeeku ku ne da nga fi nekk jóg fi àddina mel nii rek ñépp reer añ dara du yàqu kon mbir mi dafa nekkul sunu mbir dafa am keneen ku ko yore amu ci kenn ku ci nit ñi jey wala nga jeyu bañ ne yaay borom jamono yi déedéet dangay ngay dee jamono ne fi rek <laughs> borom jamono yàlla rek la moom rek mooy borom jamono moo ko moom waaye ku mooy yàlla moom yow doo yore woo jamono ndax boo dee dara du soppeeku ñu réyoon ci sa bërëg say nopp yépp bañ demee jant ngi fenk di sopp nit ñaa ngi añ di reer li ci ne rek ni meloon la mel yàlla ne loolu sama kàttan kon kooku wéetoo la xàqam la moom yàlla moom kenn rek moo ko jël mu ne walillahi ñeel na yàlla kon ci moomeel maa fi samawaati lépp li nekk ci asamaan wa maa fi ardi ak li nekk ci suuf wala qad wasaynaa dénkoon nañ la dina ñi nga xam ne oto joxeef na leen alkitaaba téere min qablikum ci li leen jiitu wa iyaakum ak yéen ñii lan an ittaqullaha na ngeen ragal yàlla téere yépp loolu ci nekkoon wa in takfuroo su ngeen ko weddee ñàkk jom rekk la waaye duñ duñ duñ néew kàttanam ndax fa inna lillahi ñeel na yàlla ci moomeel maa fi samawaati wa maa fi l wa kaana nekk na laahu yàlla musul dañu yàlla xaniyan di aji giijal xamidan di ku ñu sant giijal na soxlawul leen ni kenn ku ñu sant la géej ji jën yaa ngi koy sabbaal ci lëggam géej picc yaa ngi ko sabbaal ci kaw jaww ji yent yent yi di wat di ko sabbaal garab yaa ngi junj ak ahadiyatoom bàyyi ma yaa ngi koy rukoal gëjëbaaf beeg jaan yaa ngi koy sujjootal kon kay yàlla am na ñu koy sant ku di yow kon boo santul itam moom yëgut la walillaahi ñeel na yàlla maa fi samawaat lekk li lépp lu nekk ci asamaan wa maa fil ardi ak li ci suuf wa kafa doy na billaahi ci yàlla wakilan di ku ñuy sukkandikoo in yasha su ko neexewo yuzhibkum mu yóbbu leen ngeen dem ayyuha naasu yéen nit ñëpp wa yaati mu indi bi aaxari ne ci ñeneen ma ne ma ngi koy def wa kaana musul nañ laahu yàlla qadiran a ajaatana ala zalika ci yóbbu leen indi ñeneen kon li fi nekk daal mooy man kaana ku nekk na yuridu di bëgg sawaaba duniyaa yoolub adina nëkkër kër yi ndax fa ind lay nekk na fa yàlla sawaabu dunia wal axira koo xam ne àddina rek moo la tax a jóg nga amu tam xel waaye yàlla àddina ak alaxira yépp la yore moo tax mu ne man kaana yuridu sawaabu dunia yem ca ne fa ind allahi moom sawaabu dunia wal axira wa kaana musul dañ laahu yàlla samion daa ji dégg basiran daa ji xam mu ngi ñëw ci bàyyi na loolu mu ñëw ci seede ak maando ak nu ñu war a gëm yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran koonoo nekk leen awaamiina di way taxaw bil qist ci maando lépp lu ngeen di def na ngeen ca sàmm yàlla sàmm ci maandu te ngeen di way seede lillaahi ngir yàlla walaw ala anfusikum doonte seede bi day war ci seen kawit na ngeen ci wax dëgg awil waalidayni donte sa ñaari way jur ñoo la oo seede it wax ci dëgg ayul aqrabiin wala way jege ñaale yi su fekkee ne danga ne seede bii de su ma ci waxee dëgg sama baay dina ñàkk nangam sama sama ndey sama doom sama jege ñaale su ma ko seede léegi dina ñàkk lii yàlla ne in yakun bu nekkee xan yéen di aji woomal ba tax nga di ko seede lu du dëgg ngir bëgg loola continuer fallaahu yàlla awlaa bihima yàlla moo gën a ay ca loola fekkee da nga koy yërëm yàlla la ko gën a yërëm fekkee dafa oomal yàllaa ko gën a am nga yaakaar ne boo ko séedee mu ñàkk ko yàllaa ko ko mayoon allahu la bi ci ñaari jamono yépp fala tabiu bu leen topp kon alhawa banneex an taadiloo ba ngeen maandoo banneex bu su fekkee ngeen a gàttañlu di bañ a seede dëgg aw tuaradu wala ngeen dëddu bañ seede dëgg fay na laa yàlla moom kaana musul dañ xabiran daa ji dañ kumpu bi ma taamaloona ci la da ngeen xam ko da def ko yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gi ma alquran aminoo gëm leen billah cheikh ne na yàlla ne na yaa ayyuha alladina yéen ñi gëm yàlla gëm leen mu ne ki gëm yàlla kay gëm na kon lu tax mu ne yaa ayyuha alladina amanu aminu mooy yéen ñi gëm yàlla sax ci gëm googu bu ci dara dindi mu ne loolu mooy yaa ayyuha alladina amanu aminu billahi wa rasuli mooy sax leen ci wal kitaabi ak téere allazi bi nga xam ne nazala wàcc na ala rasuli ci yenent bi wal kitaabi ngeen gëm téere bi allazi bi nga xam ne anzala wàccee na ko min qablu mu jiitu bile mooy tawraat ak linjiil ak yeneen ya wa man yakfur ku weddina billahi ci yàlla wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil axiri mu weddi bés penc kooka nag day moom faqad dalla réer na dalaalan réer goo xam ne baidan gu sori dëgg la mu ñëw ci melokaanu naafiq xam nga naafiq moom day dem ak dikk rek dafay déng-déng ci mii mbir doo ko mën a àttee ni jullit la ndax weddi gaa xol bu bon bi waaye doo mën a wax ne yéeféer la ndax julli gi muy julli nekk ci jullit ña kon kooka euh, day dem ak dikk léeg-léeg mu gëm léeg-léeg mu weddi sama borom ne inna na naka ñi nga xam ne amanoo gëm nañ su ma kafaroo gannaaw ga ñu weddi kon saxut ci dara gannaaw ga su ma amanoo mu gëm su ma kafaroo ñu weddi saxuñ ci dara weddi gu mujj gii nag dañut su ma daadoo ñu dolleeku kufran ak weddi ba dee ca ah ñooñu nag moom pexe amu ci lam yakunillahu nekkul yàlla mukk mukk mukk li yaxfira di baal lahum ñeeleen lam gi juxuut la yàlla dafa weddi njëggal la ne duñ ko am mukk wa kullu laamin qablahu ma kaana aw lam yakun wala falil juhudi baana kon yàllaa ngi weddi njëggal ñooñu duñu am njëggal mukk lam yakuni laahu li yaxfira lahum wala li yahdiyahum du caageen mu leen di jubal mukk sabilan wenn na yon wu leen di yóbbu aljanna bashiri xamalal kalimatul bashiri bég la waaye bu jëmee ci safara wala ab yéefér xamle rek lay doon dootul nekk bégal bashiri xamalal al munafiqina nafiq yi bi anna lahum naka ñeel na leen azaban mbugal moo xam ne aliman aji metti la ñen ñooy naafiq yooyu nu ñu mel ndax boo nee naafiq naafiq ñun war nañoo xam nu ñu mel mu ne mu ne na mooy ñi nga xam ne na dañuy jàpp ka alkaafirina yéefar ya awliyaa ñu di xarit yi ñu gëm seen mbir min doonil muminina ñu teg fa julit ña ñoom dañuy ànd ak julit ña waaye seen xarit yaa ngi ci yéefar ya yàlla ne waaw ayab xuuna ndax dañoo bëgg a sàkku indahum fa yéefar ya al izzata xëy na ja nekk ci lañ bañ a moo tax su fekkee loolu la waaye xamal leen leen ne fa inna al izzata naka teraanga jamian lépp lillaahi ñeel na yàlla waxa nazala wàcce na aleykum ceen bil ci téere bi wax ju am solo yàlla nee na wàccee naa ci téere bi lu am solo nangeen ko déglu moo di ne bu ñu nekkee yéeféer bu ñu weddee sa alquran fu ñu weddee sa yonent fu ñu weddee sa diine bul toog ak ñooña bul xaritoog ñooña bul joteek ñoom dara moo tax mu ne wàccee nañ ci téere bi wax joo xam ne moo di ne an eey ida samitum bu ngeen déggatee ayaati lay alquran yàlla ji yukk far dee fi weddi biyaa ci moom wa yustahza dee fi yijji ko biyaa ci moom falaa taqudu bu leen toogati maawum ak ñoom xataa yaxuudu lu may ba tañu xuusee fi xadisin ci waxtaan xayrihi bu may weddi yàlla ndax innakum naka yéen izan bi ngeen toogee ci ñoom ñuy weddi alquran ak di ko yëjjëg di ko reetaan misluhum yéen a nga mel ni ki ñoom te ina laa yàlla kat yëgal ne yéefér ak naafiq ndax yéefér yéefér na naafiqi day toog ak yéefér muy weddi yàlla tax na ba ina laa yàlla jaamiul munafiqin aji boole la munafiq yi wal kaafiri na yéefér yëpp fi ma ci safara jamian ñoom ñëpp bokk na ci seen ba tey alladina ñi nga xam ne yatarabasuuna ñu ngi muñandiku bikum ci yéen ay xew-xew ba ñu reetaan leen fa in kaana bu nekkee lakum ñe leen fatun ak ubbe min laay ci yàlla xaaloo ñu ne alam nak takun ndax ne ndax nekkunu woon maakum di ànd ak yéen ndax ñun du wut na ñun ak yéen a nekkoon ba du ngeen ñu sédd loolu la ñuy wax waaye fa in kaana bu nekkee ubbi ga lil kaafirina ñeel yéefar yi nasibun cër bu fekkee yéefar yaa gañe nag xaaloo ñu ne waaw alam nastaawis aleykum dem ne yéefar ñi waaw du ñun ñoo leen natal julit ñi wax leen pexe julit ñi ba ngeen mën leen a gañe wa wa wa namnaakum ñu tere leen min al muminin ñun ñoo tere woon jullit ñi ñu dal seen kaw kon yéefar yi sedd leen ñu bu jullit ñi gañee ñu ne noog yéen la woon sédd leen ñu kon xanaa ñoom ñu fenn minal muminin fallahu yàlla yaxkum mooy nar a atti rek baynakum seen diggante yowmal qiyaama waaye du leer fii wala yàlla du def yàlla mukk lil kaafirin ñeel yéefar yi sabilan wenn yoon wu ñuy muccee wu ñuy notee alal muminina ci jullit ñi yowmal qiyaam loola dañ ko mën a am bokk na ci seen i jikko ba tey yéen wax na ci xadiisil ñetti màndarga lañ am nit koo xam ne su waxee yow dana fen su la dëelee dara dana la wor soo ko joxee kóolëree dana la wuruj loolu seen melokaan la alquran nag mu ngi indi yeneen melokaan yu niroog yooyu alquran nee na nooy xamee nafiq daal mooy koo xam ne day jéem a war jullit ñi ànd ak ñoom te gëmut la ñu nekk mu ne yaa ngi koy xàmmee buñ ko wooyee jëm ci julli buñ noddee wala ñu ne julli jot na mu daldi di ëbbali daal di fudd daal di tayal di balet balet yi julli ga sax day sëgg ki siggi du ci tudde yàlla xanaa laa ko barjala tuuti rek la cay tudde yàlla kooku nag du julli du yéeféer day déng déng yi bokkut ñee bokku ci ñee mu ne kooku noonu lay mel loolu lay wax ne inal munafiqi naka nafiqi yi yu xaadicuuna dañuy jéem a warante laa ak yàlla owa yàlla it xaadicuhum da leen di fay yàlla du wor xaadicuhum da leen di fay seen ak wor rek wa ida qaama bu ñu jógee ila salaati ci jëm ci julli qaamoo nga gis ñu jóg ku saalaa di way tayal benn jikkoo ngoog yuraawuna naasa dañ bëgg a wan nit ñi ne ñu ngi julli dong te buñ jullee beneen bi laa yaskuruna allah duñ mën a tudd yàlla ci julli ga ndax seen xel nekku ca illaa qalilan lu lu tuuti mooy allah ñooña mu dab dabiina way déng déng yi lañu bayna zalika diggante gëm ak weddi laa ilaha ula bokkuñ ci ñi gëm wala ilaha ula bokkuñ ci ñi weddi réer nañ kon wa man yudlillahu ku réeral na ko yàlla falante ji da ci la lawa ñel ko sabilan wenn yoon woo xam ne da ko ci mën a xettale <laughs> bay na loolu mu ngi ñëw ci muwalaatul muminina lil kuffar te itam wax ne rek waxtu woo xamee ne dangaa jël ay yéefar ñu gënal la ay sa mbokki jullit ci jëflanteeg ci liggéey lu nekk dana am ñu cay dem sax ba loolu de boo gisee ma di ko def léegi yéefar yi ñoo ñu gën a jub wala ñu naan léegi yéefar yi ñoo ñu gën a dëggu sama borom ne loola nag du ci lislaam dara ci yéen la ndax ni niñ def ba yéefar yi gën leen a jub yéen a ko def waaye lislaam du moo leen ko sant na meloon la mel yéen a bàyyi kon na ngeen meloon yéen a bàyyi nañ leen santoon mu daal di ne kon nag kon yaa ayyuha alladina amanu Yen gañi gam al alquran la tattakhidu bulen japp al kafirin yéefar awliya ñu di seeni xarit ya ayyuha alladina amanu tattakhidu al kafirin awliya min duni Mu'minin ngeen bayyi julit ña aturidun ku ko ci def nak soko waxe mu nan yalla mako ko defloo yàllaa ma sant aturidun ndax da ngeena bëgg nak anta jaaloo ngeen def Ilahi ñeel yalla alaykum ci yéen sultaan wenn lay mu benen wuy bir du ngeen ko meuna am li woor moy innal munafiqin nak nafiq ya. fi daraki ñinga ca ba al asfali budi aji suufe min an nar ci safara degere bi gëna a ci safara fa la ñuy ne ndax moy gëna tang tàng ji da fekk ci leewum ñeen len nak ku len di tere mbugal moomu ila lëg yéen lu moy nga xamne tabu tub wa aslaxoo ñu yéwénal seen jëf wa atasamoo ñu jàpp bilaay ci yàlla wa axlasoo ñu sellal diinahum seen diine lilaay mu ñeel yàlla fa ulaayika ñooñu nag léegi nekk nekkatuñ naa feq ma al muminina ñooy ànd ak julit ña wa sawfa nuuti laa fa sawfa yuuti xal si naa jox laahu yàlla al muminin ajaran yool aziman bu daay ji mag te nag yàlla mbugal leen lakk leen ci safara sa jëriñu ko dara gis nga yàlla mii su ngeen ko toppoon te di ko sant ci xéewal yim leen di jox doyewul bugal leen dara su ngeen ko gëmee sant ko ci xéewal topp ko bugal leen doyewu ko dara loolu lay wax ne ma yafalu llahu bi aadabikum in shakartum yàlla doyewul dara bugal leen su ngeen ko doon sant ci xéewalam yi waa amantum te ngeen gëm ko wa kaana musul dañ laahu yàlla shaakiran bi fa fail bi maanaam mafuul shaakiran di ku ñu sant moom yàlla yàlla moom boo ko santulit am nañu ko sant xanaa xamoo ne garab gi wow sax xalaat ci ahadiyatu yàlla sant yàlla ba taxaw ca maqaam ak ahadiyatu moo ko taxaw wow xanaa xamoo ne lépp loo gis mu taxaw rek ma ngi sant xéewalu yàlla ak nekkam kon nag yàlla musul dañ di ku ñu sant aliman di aji xam kon boo ko santulit du wàññi ca la mu doon def dara صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خزل المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وزد في ارزاقنا وطول اعمارنا وانصرنا ولا تنصر احدا علينا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 ilaa man lu may koo xam ne dulima tooñeef na ko kooku la may bu fekkee mënula muñ wa kaana mosul dañ laahu yàlla samian di aji dégg aliman di aji xam in tubdoo ndem feeñal ngeen xayran jëf ji yiw ak wax ja aw tux foohu wala ngeen nëbba ko aw taafu wala ngeen jéggale an sooyin ci lu bon fay na laa yàlla kaana mosul dañ afuwan di aji bare qadiran di aji di aji attan bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci eh, kéefër ak gëm yàlla lu ci nekk lan moo dig mu jëm mu ne ina na naka ñi nga xam ne yeg furuuna dañuy weddi billaay ci yàlla wa rusuli ak yonentam ya wa yuri doona ñu bëgg nag an yu farriqoo ñuy teqale baynallaahi diggante yàlla wa rusulihi ak yonentam bëgg gëm yàlla weddi benn yonent loola du mën a sotti wa yaquluuna ña nga naan numinu dananu gëm bi baadin ci lenn wa nakfuru ñu weddi bi baadin ci lenn li wa yuridoona nañu bëgg nag an yettaxidoo ñuy jàpp na dalika diggante gëm yàlla weddi yonent bi wala gëm yonent bi weddi yàlla sabilan mu diw yoon ulaayika ñooñ hum ñoom alkaafiruun ñoo di way weddi xaqan ci dëgg waatan naa xare nañ lil kaafirina ñeel yéefér yi aadaban bugal moo xam ne alim muhinan mu aji doyadal la mu leen walladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ billaay ci yàlla wa rusulihi ñu gëm yonente yi walam yu farriqu te teqale wuñu bayna ahadin diggante kenn minum ci ñoom nga xam ne du benn yonente bu danañ ko weddi ulaayika ñooñu sawfa yuutihim naa jox leen yàlla ujurum seen yool wa kaana musul dañ laahu yàlla gafuran di aji bale rahiman di aji yëram yasaluka dana laaj la ahlul kitaab loola mu nga bokk ci bon bon ya yahud ya daanañu ko def ናን አንቱ ነዘላ በዋቼፈት አሊም ጭኞም kitaban téere mina samaayu bàyyi ko ci asamaan ñu ne léegi daal pour ñu gëm téere bi day wàccee asamaan ñu di ko séen ba mu daanu ci kaw suuf buur ne loolu yàgg ngeen ko wax ndax faqat saaloo laajoon nañ Muusa akbara lu gën a màgg min zalika ci wàcceb téere fa qaalu waxoon nañ Muusa ne daal balaañ laa gëm arina allaha wan ñu yàlla jaharatan ci jàkkarloo bañ ko waxee fa axadathum jàppaleen asaa'iqatu xaacu ga bi dulmihim ci seen tooñ ga ñu dal di dee ganaaw ga ñoom bani israil su ma taxasoo ñu jàpp al ijla jaamu yëkk wa di ko jaamu gannaaw bu musa demee jëli yi téere ba min baadi ma jaathum gannaaw bu dikkalee leen albayinaatu lay yu weex yi fa afaw naa ñu bale an daalika ci loolu waatee naa ñu jox Muusaa sultaanan aw lay mu binan wudaa ji biir wa rafa naa ñu yëkkati fawqahum seen kaw a tóora doj wa naan sujjóot leen ku bañ doj wi dal ci seen kaw bi mi muy taaqihim ngir seen kóllëre wa qul naa ñu wax lahum ñeen leen ne udxuloo dugg leen albaaba bunta baytil maqdis sujjadan mbirom ngeen di way sujjóot wa qul naa ñu wax lahum ñeen leen laa taadu bu leen jéggi dayoo fi sabti ci bésëb gaaw ba waa axad naa ñu jàpp minum ci ñoom misaaqan kóllëre boo xam ne xaliisan aji la mu ñoom bani israil comme ni ko ne woon ci suratul baqara buur ne nag fa bima naqdihim sabab si firi ga firi nañ ko ñoom bani israil seen kóllëre wa kufrihim ak seen weddi bi ayati lay ci alquran yàlla wa qatlihim ak rey gi ñu rey al ambiya yonente yi bi gayri xaqin ci la duwul dëgg wa qawlihim wax ji ñuy wax naan qulubuna suñu xol yi xulfun muraaye nga ca ballu fi nekk tabaa linkaañ na mooy kaste laahu yàlla alayha ci xol ya bi kufrihim ngir seen ak weddi falaa yuminuuna du ñu gëm illaa qalilan lu may lu tuuti wa bi kufrihim sabab si weddi ga ñu weddi ñoom bani israil yoninte ya wa qawlihim wax ji ñuy wax ala mariam wax ji ñuy wax mariyam naan am na doom te amul jëkkër buhtaanan aw nar aziman wudaa ji màgg wax ji yëf ju bon jooju wa qawlihim ak wax ji ñuy wax ni innaa ñun qatal naa rey nañu almasih isa ibnu mariam rasulullahi ku yonente bi te nag wa maa qataluhu ñoom reyuñu ko sax wa maa salabuhu daajuñu ko ca kaw ay garab walakin waaye shubbiha niraleef na lawum ñee leen ka ñu daaj wa inna alladina naka ñi nga xam ne ixtalafoo ñëw wuute fii ci isa ndax dañu naan su fekkee fekkee ki ñu rey ba daaj ko isa la kon ana suñu mbokk ma su fekkee suñ mbokk ma lañu ñu daaj kon ana isa ñu daal di wuutee la fi shakkin way nekk lañ ci sikki minu ci moom maa lahum di di leen bii ci wax jooju min ilmin benn xam-xam ila tibaa banni lu moy topp njorto wa maa qataluhu waaye rey ñu ko de yaqinan ci lu leen woor bal lu fi nekk rafaahu law yëkkati na ko yàlla ilayhi jëme fa moom wa kaana musul dañ laaw yàlla azizan di aji not ci kattanam xakiman di aji xarala wa inna min alil kitaab naka dee di nekk ci ñu ñëpp téere lu mooy illaa lu may koo xam ne la yu'mina nañu gëm bi ci moom amul kenn ci ahlul kitaab lu may da nga gëm yonteele isa qabla mawtihi njëkk a deew gi isa wala qabla mawtihi njëkk a dee yi boobule kooku ñaari riwaaya la amul kenn ci ahlul kitaab boo nekk ci sukuraat da nga gëm ne isa duhut yàlla waaye jaamab yàlla la loolu kon nga delloo xab qabla mawtihi njëkk a deew gi isa wala njëkk a deew kitaab bi wala boog yonent yàlla isa balaa fay jógee ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom dana ko wóor ne isa du yàlla du doomu yàlla looloy qabla mawtihi damir ji dellu ci isa wala dellu ci kitaabi bi wa yowma alqiyamati bis penc nag yakun isa day nekk alim ci ñoom shahidan di aji seede li nga xam ne moom la ko yàlla ni woon lépp dana ko leeral bañ xam ne moom du duutoon yàlla toon doomu yàlla bokk na ci bon boni yahudiya fa bi dulmin ci sabab si tooñ mi ne lesi na ci ñi nga xam ne haadu yahud nañu xaram naa la ñu xaraamal alayhim ci ñoom tayibatin lépp li nga xam ne dafa teey te uxilat dagana lef na la ko loomu ñeel leen wa bi saddihim ak seg ga ñuy seg te mooy tere an sabilaay ci yoon yàlla katiran lu bari wa axzihim jàpp ga ñuy jàpp riba wa xannuhu te tereef na ko anu ci moom wa aklihim ak seen ak lekkam wala naa si alali nit ñi bil baatili ci caaxaan waata naa xare nañ mooy waajal nañ lil kaafirin ñeel way weddi ya mënum ci ñoom azaban bugal aliman mu daaji metti lakin waaye arrasiquuna way sax ya nag fi lilmi ci xam-xam minhum caalul kitaab wal muminuun ak ñi gëm yàlla ñoom yuminoona danañu gëm bi maa unsila ci la wàcceef na ko ilayka jëm ci yow wa maa unsila ak la wàcceef na ko min qablika lu la jiitu wal muqimina ak ñey taxawal salaatu julli wal muutuun ak ñey joxe zakata azaka wal muminuun ak ñi nga xam ne ñooy gëm billaay ci yàlla wal yow meeg bés bi àlaxiri bu daa ji mujj ulaayika ñooñu sa nooti yim danañ jox leen ajaran yool aziman boo xam ne aji màgg la inna ñun yàlla aw xëy naa ñun ñoo wax yu ilayka jam ci yow yonent bi yonent yëpp yàlla moo leen yónni wax yu leen ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy wootee moo tax mu ne ñun ñoo la wax yu alquran kama aw xëy naa naka ñu wax yu ilaa nuuxin jëm ci nuux wa nabiyin ak yonent yëpp min baadihi ak idris ak sisa waawxaynaa ñun ñoo waxyu ila ibrahim ak ismail isxaq ak yaqub wal asbaati ak sadiya sadiya mooy ñëpp ñu bokk ci doomu yusuf ak binyamin wa isa ak ayub ak yunus ak haaron ak suleyman waate naa joxoon nañ daawuda zaburan téere wa rusulan am na yeneen yonente yoo qad qasasnaahum nettali woon nañ ko aleyka ci yow min qablu lu jëkk tey waaye wa rusulan am na yeneen yeneen yoo xam ne lam naqsusum nettaliwuñu ko alayka ci yow kon doo xam ne ñu toll wa kallama laa waxee ne woon na yàlla Moussa takliman ak waxee Moussa ne na ba ma yàllay waxe wax jaa ngay fu nekk sama yaram wi fu nekk ay dégg rusulan ay yonente lañu ni ñu di way béglee wa munzirina ñu di way xuppee li àllaa yakuuna dañoo bañ nekk rek li naa si ñeel nit ñi àla laayi ci war yàlla xujjatun wenn lay moo tax mu indi ay yonente yu bari jox leen ay téere ak i ndigal ak tere ngir bañ rek bu ëllëgee kenn di am aw lay naan yàlla xaw ma woon nangam baada rusuli gannaaw bu mu yónnee yonente yi wa kaana musul dañ allahu yàlla azizan di aji not ci kàttanam xakiman di aji xarala laakin waaye allahu yàlla moom yashadu mooy seede bi ma anzala ci la wàccee na ko ilayka jëm ci yow anzalahoo yàlla wàccee na ko bi ilmi yi ci xam-xamam wal malaayikatu malaaka ya yashaduuna ñooy seede loolu wa kafa doy na billahi yàlla shahidan di aji seede ne mooy yónni mooy yónni yóninte yooyu léegi alladina dafay wax léegi ci pay ak ki nga xam ne moo doon weddi moo ne inna alladina nak ñi nga xam ne kafaru weddi nañ yàlla wa saddoo ñu fekk mooy ñu tere an sabillahi ci yoonu yàlla qad dalloo ñu réer nañ dalaala nag réer baidan gudaa ji sori dëgg léegi alladina naka ñi nga xam ne kafaru weddi nañ wa dala moo ñu tooñ lam ni laahu nekkul yàlla mukk li yaxfira di baal lawum ñeel leen wala di yaadiyahum yàlla du leen jubal tariqan wenn yoon ila tariqi jahannam xanaa yoon wu leen di yóbbu safara xaalidina ñu di way sax fiyaa ci safara abadan fawwa wa kaana nekk na musul dañ zalika dugal safara ki weddi yasiran di aji yomb alalaay ci yàlla yaa ayyuha annaasu ey yéen nit ñi qad jaakum dikkal na leen a rasulu yenint bi alayhi salaatu wasalaam bilhaq ci dëgg min rabbikum bàyyi ko seen borom fa aminoo gëm leen li mu indi xayran kon mu nekk aw yiw lakum ñeen leen wa in takfuroo su ngeen ko weddee koy yàlla am na ñeneen ñu ko gëm ndax fay na lillaahi ñeel na yàlla maa fi samawaati lépp li nekk ci asamaan wala deg suuf wa kaana musul dañ laaw yàlla aliman di aji xam man di aji xarala ci ay njëfteefam Isa nag bu leen ci jéggi dayo ndax itam juddu gim juddu te amul baay loolu du tax nag mu nekk doomu yàlla moo tax mu ne yàlla alal kitaab ey yéen alul kitaab laa taxlu bu leen bu leen jéggi dayo fi diinikum seen diini wala taqulu bu leen wax alallaahi waral yàlla ilal xaq lu muy dëgg innama almasihu naka naka masih muy isa bnu mariam rasulullah yonent bi yàlla la wa kalimatuhu baatu bi yàlla la alqaaha yàlla moo ko sanni ila mariam wa ruuxun ruuxu la minhu bu bàyyee ko ci yàlla luy baatu yàlla yàllaa ne ko kun mu daal di nekk looloy baatu yàlla fa noo kon gëm leen la ci yàlla wa rusuleeg yonentam wala taqulu bu leen wax ne salaasatun ñett la intahoo na ngeen daayitalu xayran moo gën lakum ñeel leen innama allahu yàlla ilaahun yàlla la waaxidun benn la subhaanahu wa sell na ko mën a jomb na an yakuna di nekk lawo ñeel ko wala dun doom lawo ñeel na ko ci moomeel maa fi samawaati lépp li nekk ci asamaan wa maa fi l ardi ak li ci suuf wa kafa doy na billaahi ci wa wakilan di ku ñuy sukkandikoo wala ku daaji seede lan yastankifa masula rëy rëylu almasih moom mu yent yàlla isa masul bañ wala muy rëy rëylu an yakuna muy nekk abdan di jaam lillaahi ñeel yàlla ولا الملائكة بتشاجن ملاك يا المقربون يجري نين جعل ومن يستنكف كيبكو كيف كيبكو ري ريلونا كيبكو تريو عن عبادتي يجي جامو يلا ويستكبر مري ريلو فسيحشرهم قال سنا فنجلن إلى جميت يلا جميعا نيم يب سام اللجنة دال نيجا قمني عمنو قمني وعملوا نيجف الصالحات فرتيك نافلي فيوفيهم دنا متلين يلا وجورهم سنيال ويزيدوا مدللين من فضله تنجنيلم وعمل اللجنة دال نيجا قمني استنكفو bañoon nañ ne duñ jaamu yàlla ngir ak rëy wastakbaroo ñu rëy fa yuaddibuhum dana bugal leen yàlla adaban bugal aliman mu daa ji metti walaaye ji doona duñu fekk lawum ñeel leen min dooni laay lu dul yàlla waliyen ku daa ji méngoo seen mbir wala nasiran du caageen ko leen di tere walis mbugalam yàlla yaa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi qad jaakum dikkal na leen burhaanun aw lay من ربكم بايكو تي سن بروم مودي القران وانزلنا واتي نان اليكم تي يين نوران لير غو خامني مبينن غداجي بير مودي ايمان بي جوغي تي القران فام الذين ندال نيغا خامني امنو گم نان بلاي تي يالا واعتصمو تي ني جاب بي تي دين جيلي فسيدخلهم دنا دوغال لين يالا في رحمه تي يرماني منو بايكو تي موم وفادرنا نغنيل ويادي مجبل لين الي جيمي تي ام صراط يون و خامني مستقيما وني تشوالا يستفتونك نيغي لاج لا قل وخالني allaahu yàlla nag yuftiikum moo leen di ubbee tey fil kalaalati ci kalaala kalaala mooy koo xam ne dee na kenn kum jur amu fi ñenn ñi ko juróon nekkuñ fi ay mbokk koy donn loolu mooy kalaala dafa am ñaar benn ay doomi ndey di ko donn su boobaa doomi ndey ñooy am góor ak jigéen ay yem wala boog ay doomi ndey ak bàyyi di ko donn su boobaa góor ñaar jigéen benn benn ba waxoon na ko ci bopp saar wi benn baa ngi ci mujj gi li ko tax a wàcc moo wax ne bi mu feebaree yonent bi dafa dugg ci moom di ko seet si fekk mu ngi feebar mu ne yonent bi daldi jël ndox jàpp ca jël njàppi li sotti ko yaram wi sedd mu daal di mën a wax jaabir na yonent bi man dey duñ ma doon lu mooy ci kalaa la ndax juruma kenn samay way jur kenn dundul aaye bi ma ngi wàcc ci waxtu noor bu jëkk baa ngi wàccoon ci waxtu euh, lal li waxtu sedd bii ngi àttee ay doomi ndey dong bii di àttee ay doomi ndey ak baay loolu lay wax nag ne yàllaa ngi lay ubbee ci kalaa la inum ruwu ndem ndem nit xaalaka dee na lay sa loo ñeelu ko wala dun doom wala woote ñeel na ko uxtun am mbokk falaha ñel na mbokk ma mu jigen ma ni suma tarak taraka genn ak limu bayyi wa huwa ku gor ki hit su fekkon ku de ku jigéen kee dee yarusuha mo koy don ilam yakun bu nekul la ñel ndaw sa wala du dom fa in ta bu ñu nekkee mbokk ya gis na ñaari ñu jigen fa ma ñel leen sulusani ñaari sulus bi ma tarak ci la waji ji wa in kana bu ñu di rijalan di di rijalan ay gor nga ca wa ki jigen kon te ñuy ay domi ndey ak di ay ashiqa kon fali dakkari ñeel na ko góor ka mislu haddil unsayayni këm cëri ñaari jigéen yu bayyinu laahu dana biral yàlla lakum ñeel leen anta dilloo ngeen réer wallaahu yàlla alimun aji xam la bi kulli shay'in ci lépp lëf